secretaire national dañ ne ci suñ statut ñaar fukki nit la mën a doon ëpp ga juróom fukki nit. Mhm. ëpp ga juróom fukki nit. li fi mu toll moom fi ñu toll ñaar téeméer ak juróom fukki nit fal nañ leen ci secrétaire national bi. Mhm. beneen bi mooy dama bañ ñu jaawale li ñuy wax secretaire nationaux adjoint. Mhm. ak secrétaire général national adjoint. président Abdoulaye Wade. Mhm. secrétaire général parti bi yoon may ko mu secrétaire national adjoint manam bu tànnee secrétaire national ba pare. Mhm. mën na koo toftal kenn waaye lim ba yëpp mënta weesu d'accord Liko ko mayul. Mhm. mooy mu secrétaire général national adjoint. ba koy adjoint. kon loolu mooy. ci wàllu méngook sart yi. Hmm. dafa am beneen da ma laaj lu tax ñun ñu bugg maanaam ñu delloo pal gi. bu rombee ni mu fale. merci ci biir ñi mu fal. Hmm, lan mu leen ci métti. merci foofu laa doon ñëw léegi euh, foofu dañu gis ne euh, jamono bi ñu toll. Hmm. réew mi yëngatu. jamono bi ñu toll gouvernement bi nekk ci tolof tolof yu métti ñuy wax affaire pétrole ak Aliou Sall. mbay mi commencé sooxe ndax nawet bu tardé accident yi bëri ci tali réew mi alal nyak nol ba dem ci maanaam euh, euh, lu dem ci ñeent fukki junne yi doomi aadama bu ñu xëyee du wala bu ñu lekkee du ngoonee du Macky Sall am mandat dak premier ministre amutoko, ko gouvernement bi loof lool parti démocratique Sénégal amul lenn lu muy def lu dul di yëngal ñaar ci yëngal boppam bi ñuy dindi ay nit ñoo xam ne euh, yaakaar naa ne juróom-ñaari at yi weesu seen taxawaay pour PDS mhm. euh, des ci biir parti bi fekk président mu nga Versailles fekk ki nga xam ne tey mooy Karim Wade suñu candidat at yi mu def kaso ñetti at yi yeneen at yi ko des yëpp mhm. daf ko dem nekk ay nit mhm. bàyyi seen bàyyi ñoom waaw topp ñu seen rakk wala seen mag nangu ñàkk lépp seen jot liggéeyatu liggéeyatuñu guddeeg bëccëg mhm. ngir parti bi taxaw ngir seen candidat ki nga xam ne dañ ko defoon candidat ngir mu mucc ci kaso bi ñu génn ko ci kaso bi waaye ñu fexe mu dem ci élection loolu yëpp nga xëy benn bis mhm. ne kenn watu du fi am 2019 loolu jàll nga jël bataaxal génne ki jiite woon liggéey boobu ak lu mu munta def

est-ce que juróom ñaari at yi weesu waxuma sax juróom ñaar fukki at ak juróom benn yi weesu ak ñaar fukki at ak ñaari ñu ak Ablaye mhm. waaye juróom ñaari at yi weesu mais PDS Ablaye bi mu fi jógee gouvernement ñaata la yor ci ministre ak ay mini ay député ak ay président assemblée nationale ak ay sénateur ak ay ambassadeur ak ay ay ay ay ay mhm. ñu toog ba ci ràññee ñetti nit fu ñu PDS ñu ne Omar Sarr fu ñu PDS ñu ne Babacar Gueye fu ñu PDS ñu ne Maître Sall Mm-hmm. ñu toog xëy ñooñu ñu nekk dara ci parti démocratique sénégalais ñuy indi ñoo xam ne benn amuñu sax carte parti di leen fal ay secrétaire adjoint d'accord euh, amuñu taxawaay ci PDS amuñu ko expérience ba ñu bëgg leen pousse parce que rek dañu jege. ki nga mm-hmm. xam ne tey mooy Karim Wade loolu dafa poser problème. Euh, Babacar Gaye li ngay wax nii mbaa nekkul ni dafa nar a doon ku bëgg a ñiit ndab li. moom bu fekkente ni. yéen ñi mel ni yow ak ñi ngeen àndal di ŋàññi ni maître wàdd fale ak ñi mu fal saa nga dama dégg nga ni mu fal ñeneen jële fi ñu fi nekkoon c'est vrai def ngeen ak njàmbaarte ci ay post yu leen joxoon mais tam jamono booba am ñu nekkoon ca ginnaaw bàyyi leen ngeen doxal juróom-ñaari at mbalu ko ëpp ñoom itam tey buñ leen fale war ngeen nu nga war a mën a reculer def jëfu démocrate dëgg comme seen parti di di di di wuyoo wala mu koy woote woo ngir bàyyi ñooñ doxal bañ leen a ŋàññi ndax nekku noonu mu ko defal ci yéen ndax dem ngeen tam boo wane seen mission réussir ko wala ngeen échec ko ça dépend lu mën di xew. déedéet mën nañoo fal ku ne pour mu remplacer ku ne. Mhm. kenn ci ñun nekkul indispensable. justement kenn ci ñun nekkul koo xam ne bu fi mhm. nekkul du baax. waaye. dafa am lu solo mbir moo xam ne dañ ko bokk ñun ñëpp suñ koy dénkaane dañu bëgg ñu dénk ko ñu yàpp ne war nañ ko mën a yor mhm. dafa ñaar ñu tax may wax benn bi mooy euh, ci euh, li ñuy wax euh, légalité mhm. ci yoon ci yoon xanaa kay kanakan moo tax ngay wax man duma am débat de personne ay principe lay waxtaanee mhm.

débat bi du ay nangoog bañ débat bi mooy ñu dellusi ci ndax am nañ carte wala am carte. d' accord c' est vrai bu la neexee. nañ dellusi ci. Mhm. li may wax légalité bi. mais du woon yoon booba itam ñàkk dem congrès itam du woon yoon tam seen parti seen parti dafa am charte bu koy war a permettre ngeen dem congrès aussi. ba tey li may wax rek yaa ngi yokk. déedéet dama bëgg ñu avancer yaa ngi yokk la may wax karaw. d' accord ci xar mi. ndax li nga ma bëgg wax mooy ndax dogal yi jaar na yoon wala déet. Mhm. yaa ngi may wan ne ma. waaw ngi may wan ne ma. Mhm. dogal yi dafa desee jaar yoon. d' ngeen nangu woon ko. Euh, mhm. ab déet mhm. ku mën a wax déet benn yoon. Mhm. donte waxoon nga junni yoon waaw. sa waaw yooyu mënuñ am mukk signification. donte mën a wax benn yoon déet. d'accord yaa ngi tolloon ñaam kat ak ñàkk kat avancé foofu euh, ñu waxtaan rek. da ngay déglu boo posé question tontu maa ngi lay déglu bu baax. non euh, dama bëgg nga dégg ma. maa ngi lay dégg lay dégg dafa des <laughs> dama la doon waxal ne Eh, li tax ñun ñu lu tax ñu jël diw sàngam wala diw sàngam. Mhm. dañu bëgg ñu teg ko ci yoon. ku amul suñ carte parti waroon ñu nommer ngay jiite suñu ay secrétariat national ba cay nekk adjoint mooy benn. nangu loolu. Mhm. mooy nangu loo xam ne ëllëg ci kanam mbaxana fu mu nekkee benn dañuy nasaxal suñu parti. ñaar nit bu ñuy falaatee. Mhm. président Abdoulaye Wade mooy am confiance ku ko neex. donte ndaw yi am na ci ñu xarañ ñoo xam ne war nañ leen mën a jox ay ndomb ñu mën ko doxal mhm. waaye gis nga li ñuy wax jeunisme maanaam ndaw yi dañu war a ñëw rek mag ñi puus loolu parti bu ko saxoo da nga suux xam lu tax dafa am loo ne fekkee da cee baax pour mën a ah, ñi fi ne tey mhm. ñun ñi nga ne ay mag lañu bu fekkee dañ ko bëgg a ci ñi mag ñi dañu waroon dem mais xanaa Ablaye Wade moom moo ñu mag nag moo tax mu jël ay ndaw bàyyil ma pare daal leen di boole ak yéen ñi ak ñoom déedéet hankay non non non secrétaire bu bees bokk nga ca ma ne xam nga lu doon sama cër ci ak El Hadji Amadou Sall xam nga lan moo doon suñu cër mag xam nga loon maag suñu cër ak El Hadji mhm. Amadou Sall mhm. Omar Sall dañ ko génnee mhm. moom dañ ko dàq ci secrétaire national complètement n'est-ce pas sama cër ci PDS ci secrétaire national xam nga lan la woon bi mujj bi nga xamee ne président Blade mooy secrétaire général Omar Sarr moo ci teg woon comme secrétaire général adjoint Madické Niang moo ci tegoon man maa ci toppoon cër ba ma amoon ci PDS cër boobu ma yoroon te Abdoulaye di jàppoon ne loolu lu ma man la xam nga ko jox ku jox kan la ko jox Karim Wade loolu moo la metti déedéet en ah, kay fii franchement dama bëgg ñu tënk ci dara ne allez-y yàlla sàkkatul ci àddina ci politique lu may métti ndax dama ci wutul dara

mas naa ñëw di ma 2015 sama mag bi mu gaañoo la mu wax suñ kër témoin yaa ngi fi de ñoo ko àndoon mom, àndoon ak moom ñu ngi fi jàpp na ne. Mhm. fukki at ak ñaar yor na ko nguur gi fàttalikul fu mu ma dara. man sama ànd ak président Abdoulaye Wade ñaara tax benn dama jàpp ne kilifa la njiit la mat na ko yelloo bi ñu des dama xam ne réew mi war na ko liggéey mànd ci ak mais du ay pal. d'accord lu ay pal da nekkoon sànq point bu damay jeexal ci point important boobu parce que mooy ñi am carte PDS ak ñi ko amul bàyyi ma wax la des am na ñoo xam ne ay mag lañ mhm. mag nañ ma fukki at ñu ngi ci secrétariat bi man suñ ma jëlee ñetteelu place mhm. nommé fukki secrétaire généraux ak benn mhm. su fekkee ne président Abdoulaye Wade ci fukki secrétaire généraux adjoint yi muy nommé yéene ci Oumar Sarr yéene ci yéene ci yéene wu ci maître Amadou Sall y a un problème. pourtant yéene woon un leen. non franchement. ba fal leen. fam ñu da nga la non. secrétaire général, secrétaire général, adjoint alors. la wax. Mhm. secrétaire national généraux le fal adjoint. Wow. Fouk ak Ça soo ko indi Omar Sarak ak ab. déedéet dugalu ci Omar Sarak. indi Babacar Gueye waay. après le door a mhm. commencé. Mhm. ay cër yo xamné ne. ñun dañ koy ron mu nangu jox ko ñeneen. créer ay cër yo xamné nekul sax ci secrétaire national nit dafay ah, xam kon yow poste bi nga yor Babacar ma àggale foofu. amatul secrétaire national amu ci. parce que dama gis ni ci gouvernement bu bees PDS taxawal Wade signé ko yow Babacar Gueye yaa doon euh, secrétaire euh, secrétaire national ah chargé euh, comité d'organisation <laughs> loolu laa gis. président. Mhm. du comité permanent. bien sûr d'organisation d'organisation. loolu sax amul ci PDS. mooy ah benn waaw loolu amul ça n'existe pas loolu comité national permanent n'existe pas amul. du kuréel gu am PDS. ah bon waaw bu ñu ko sosoon ba pare bu ko neexee mu fal ma fa. waaye loolu c'est une vieille histoire. Mhm. maanaam lol, nga gis noonu comité national permanent. bien sûr c'est une vieille histoire. xam naa xel mi dafa am lu ci dellu si moo tax mu def loolu. dama ne la poste mhm. bi ma yoroon. Mhm. secrétaire national à l'orientation aux stratégies xam ne maa waroo saytu réforme yi ñu waroon def. dama ne yooyu la jël moom la jox Karim Wade. Hmm. loolu dafa lu mu tekki. lu muy tekki pour yow. pour man dafa tekki ne benn wóolute gi mu amoon ci man dafa gotteeku xam nga ñun bi ñuy bi mu ñu bàyyee ci biir bi ma bàyyee man li ma foog sama li tax ma ma delloo ko poste boobu. Mhm. dama jàpp ne daf maa caa bàyyi rek ngir ma des ci biir xam nga tax dafa am lu ko jiitu seetloo fii dafa njëkk jël décision jële ma ma nekk porte parole am. Mhm. fa la mbir yi tàmbalee kon. ca déedéet tàmbaliwu foofu.

ji nga séddale bu ñëpp yemee cër rek am ko ñu gedd seen bos man dama tollatul foo xam ne ci biir parti démocratique Sénégal dinaa toog mhm. ay ñoo xam ne amuñu carte parti di ma jiite ay ñoo xam ne xamuñ sama parti nu muy doxee di ma jiite bu ma ko jaralul man ma toog Kaffrine ak sama euh, fédération bu parti bi soxlaa ma liggéey ci waaye ma des ci biir parti bi lii sama xalaat may wéy di ko wax d'accord Babacar ni ma la xamee ñu àgg séq ay plateau man ak yow ci fii ak feneen hmm. la xam ci ay wiiri wiir ak buqat ak xeetu am lu muy ragal. loo ma laaj lu ma la waxul. kan ak kan moo ne ci secrétaire bu bees bi may Wade samp ci amul kartu parti bi. nee naa la li ma ñor tey askan wi xam ko du nekk fii ay turu doomu aadama. waaw mais tam c'est important. pour yow parce que da nga ni. détail la boo xam ne dafa jël dafa jël li may wax jox ko Karim Wade tudd nga tur deja non seen xamul kon da nga bëgg ni Karim Wade amul kartu parti bi. moo tax jox bi ñu ko jox sa ndombo tànk métti la man loolu pas du tout nee naa du ma métti ci àddina ci politique mais mais am na lu war a xew lu nit ñi dañu war a comprendre dama ne bu ñu comprendre yow yaa comprendre de comprendre naa de dama bëgg nga bu dee mën na nekk nga tuddal ñu tur du ma tudd turu nit analyser ko xool turu nit la a nekkee du ma tudd ay turu nit ci débat boo xam ne débat idée la ji nga idée yi mhm. moom lay développé am na ñu amul carte ñu ngi ci biir parti bi ci secrétaire ci bari doy na mais teewul ñu mën a liggéey mais franchement kon nañ ko yemalé fofu benen wax déedéet. comme nit amna droit dugg suñ biir parti am ci cieur mm-hmm. te amul carte te suñ carte parti limu wax mu leer nga naan ma wéy war nañ ci liggéey. nañ ko yemale foofu maanaam bëgg wax moy bu fekk nit ki amna compétence. mënul am compétence parce que bokul ci parti bi amagul parti bokul ci parti bi amagul ko mën a parti bi. dama né jakkay Medina. Mm. ku dul jullit waroo faa dugg di julli bala fay jité d'accord accord dégg naa la bu baax. leer na bu ñu waté ci Babacar gay <laughs> PDS. bu ko def débat wu Babacar Gueye ak PDS xam nga doo mu bëgg def ko débat wu lan li ñor askan wi. li ñor askan wi parti démocratique sénégalais place bi mu war a am ci Sénégal. Mhm. est-ce que jamono yi ñuy tollu loo feewu ko sooxeewul ngir askan wi xaar parti bi taxaw toppatooy soxlaam économie am. Mhm. dépense am pajam njàngam ay yoonam ay accident am ay xaalisam ay pétrole loolu parti bi nañu waxtaan loolu. soo bëggee ñu xuusit ci li nga bëgg mën naa ci bëgg ak yow Babacar hmm. même parti bi bu waree am trajectoire bu mu doxalee par rapport ak tolluwaayu réew mi hmm. ay nit ñoo koy doxal waaw ci nit ñoo ñu ñooñu tey seen biir ñoo am coow hmm. kon faaw ñu xam lu indi coow li lan la wax nañ la ko ba mu leer defal ndànk dafa des <laughs> parce que dafa am ñu andul ak yéen li ngeen def ndax gis nañ ni bu fekkente ni tey Babacar gay naam ne nga bëgg tudd ay tur mais ñu bari jàpp nañ ni gëm nañ ko njoxtu ko Karim Wad, mi maître Wade Djel, muy doomam jox ko poste bu am solo parce que Karim est ci deuxième position ginnaaw Babacar ak la yor tay nga xam lu jëm stratégie dindal moderniser parti PDS Karim Wade moko yor kon loolu wërta mën a tax ngeen di ko contesté lan moo xew exactement seen candidat bi ngeen faloon waxal sa wax doon ko samp waxal sa wax ñun la ñu wax dafa leer lu ngeen wax lu leer lu gën a leer loolu Modou mhm. soo amee xalaat waxal ko sa bopp sa xalaat askan wee njox li ma la wax je termine je termine mhm. sa xalaat munoo fexe ba teg ko ci làmmiñu doomu aadama mhm. doomu aadama la mu xalaat wax na la ko li tax ñu am jafe-jafe ci biir parti bi wax nañ la ko amuñu problème ay nit donte mais am ngeen problème ni Babacar franchement ngeen problème ay nit donte donte nga bu ñu déglu maa ngi lay déglu bu wax non bu déglu mhm. émission day yàqu du yàqu de kon da ngay dañuy waxtaan waaw kon da déglu maa lay déglu waxtaan mooy nga waxtaan mhm. dégluwante est-ce que mën nga ma déglu maa ngi lay déglu bu baax non dama bëgg nga déglu ma maa lay déglu dégg naa la merci non dama bëgg nga déglu ma déglu naa la non damay bëgg daan la déglu ngaa bëgg <laughs> Babacar xam nga bëgguma bëgguma jox la tamit dama dañu am benn timing Ah, yaa ko bëgg a teg yaa koy yàq nii ñu war a wax lu leer ci kanam askan wi mais yaa koy yàq mais boo dikkee bëgg a tiim mbir yi di wax ci kaw fekk na Ali Kalaj jàng nii loolu tamit Ali Kalaj yow yaa ko jàppe Ali Kalaj Ali Kalaj ji soxaluma Ali Kalaj ji loolu soxaluma poste bu fa Karim Wade soxaluma ah xam nga lu ma soxal mhm. parti bi ni muy doxee moom ma soxal ni muy doxee ni muy doxee mooy mhm. teguwul ci yoon teguwul ci yoon dama ne bi nu indee Karim Wade indi Baara mais nekkoon na fi ci la ñàkk a tegu ci yoon Karim Wade secrétaire national la nekkoon na fi mais ban position la nekkee ma pare Bara secrétaire national la nekkoon ban position la nekkee woon bu mu ci mënta doon soxla lu ñu xam lu soxal mhm. li def nañ tegu ci yoon li def na mengo ak suñuy valeur li def na mengo ak sartu parti bi loolu moo ñu ñor mais du nit ñi jigéen hmm? bu ëllëgee mhm. ki war a parti bi normalement militant yoo xam ne dañ ko jaarale ci ay renouvellement yu tegu ci yoon commission bo xamné ne seen commission indépendante ci biir parti bi ñu renouveler jaay carte ci transparence ñu renouveler ci transparence ki ñu fal démocrate yeb dañuy top ci gannaaw loolu moo ñu ñor mais xam nga lu ñuy bañ. moy mhm. tok di jël khalima di pousse ñi ñu genn nga taaj ñi nga bëgg taaj boko ko boko mhm. boo ko secrétariat bi nitu Karim Wade rek lañ jël duggal ci. justement déedéet da nga xam nga yow yaa bëggoon wax ay wax mhm. yo xamné ay wax yu sew la. té man non tax nitu Karim Wade yi déranger leen ci PDS.

Ah. kenn ko mës a contesté mhm. Mom Souleymane Ndéné Ndiaye d' accord kenn ñëwul mhm. ci congrès ba fekkee ko d' accord contesté wu ko dafa ñëwul ay dëmboñ contestation wala ñàkk contesté lu mën di xew Babacar tey naka lay mën a jàkkaarloo ak ñu mel noonu doon xex ba génn pédès nga doon défendre yow bobu la Maître Wade doon def lan ci doon joxe exemple sang ci Mour Diagne Fada nga ne waxul waxu Karim wad mais man invité nako wax nako ma xamni li lii lu ko metti la da nga taxone bobu défendre li maître Wade doon def ci parti bi jamono. mas nga maa dégg mas nga maa dégg ci débat ci débat ku mel ni par exemple Modou Diagne Fada wala Souleymane Ndéné Ndiaye wala ku génne ci parti bi mas nga maa dégg ci débat boobu man. Ah, Babacar. non dama lay laaj rek est-ce que mas nga ma ci dégg. ne ndax xam naa. maa dégg xam nga xam am vaar li ñuy wax vaar. bien sûr vaar mooy li ñu fi waxoon. <laughs> xam nga da wax ne di waxoon na. Mhm. est-ce que mas nga maa dégg ci débat wu

non pas ma diffamé. non non y a diffamé parce que article de presse là. c'est faux. article de presse c'est totalement faux diffamation des je c'est totalement faux tu ne m'as jamais entendu traiter mots Diagne de traite. j'ai vu un article de presse. j'ai vu un article de presse. d'accord du tu non ah, non s'il te plaît <laughs> Non, non mhm. non euh, euh, responsabilité et dignité. Ah, bien sûr. responsabilité. Ah, non non je t'explique xam pas mhm. peur de mes opinions.

non du samay wax man maa ko wax. dama gis benn article yaa ko yaa ko jottali. yaa ko xool net bi ñu ngi gis li ma la wax. mais mais oh, la ah, d' ah, accord man loolu doo ko wax ña ko bind nga. déedéet yow laa ko wax parce que yaa ko fi wax mu dul dëgg. yaa nettali lu dëgg. loolu moo tax ma ne c' pas vrai man dëgg d' accord du dëgg waxuloo dëgg gisoo parce que amul. nanu nanu joxante hmm. respect. ah si ah, li nga def respect parce que boné waxo deug te man ah, non du D'accord, li nga ah, nangul kon man m'évite pas sur ton plateau. pensant que. Mhm. mën nga sénégalais non C'est sama sama jikko. man ken xamé lu mhm. mhm. impossible question mais sauce.

bu ñuy def nga ne kenn du contesté lu normalul xam nga kañ laa njëkk ko président Abdoulaye dañu war a soppi PDS ak génération du concret ni ma gisee ñuy doxalee dinañ tas parti bi. xam kañ la. 2010 laa ko bind boobu ñu ngi pale. te samay seede may dégg am na ñoo xam ne tey kayit bi nga xam ne moom laa ko def rapport. ba tey ñu ngi ko yor ñoom. ñaareel ba. Mhm. déggu lu ma yoon yoon ñu naan comité directeur dama jàppante ak mbir yi ni muy doxee. Mm-hmm. boba maa ngi contesté loo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo mbir yi di doxal ci ni ma liñ leen koy defee amul lu njëriñ parti bi te xamoon naa lii lay jur mooy ñaar mm-hmm. ñett dégg nga ma ñaari yoon ñu ne commission bi dañ ko ma nañ ma ci mm-hmm. dañ ci dugal ñoo xam ne carte parti pour ñuy wër réew mi nan dañuy jaay suñu carte ak suñu parrainage beneen bi ëpp solo. dinaa ko wax tey parce que fii laa koy ndax wax indi wax. gis nga man. jamono bu ma demee ba gis xamatuma lu ma xam ci mbir yi ni muy doxee dama koy acté maanaam damay jël dogal mhm. août 2015, je quinze bi ma gisee ne lii dana ñëw ma xam ne ci am responsabilité dama bind président Ablaye Wade mhm. dama ko lettre de démission

dama ne ko secrétariat national bii ma yor war a koo doxal nga nome ma ko ngir ma nekk toppatoo orientation stratégie ak charge de réforme mhm. bi nga ma falee ba léegi ata ngi nii maa ngi koy bëgg a taxawal jamono bu ma ko jéemee ñu ne ma na ko teg ci suuf moom ci boppam sax ne ne ma na ko teg ci suuf mhm. kon noonu la mu ne ah, ma ne ko bëgguma bu ëllëgee buñ ne liggéey bi maa ko deful dañ may jox responsabilité jëlee ma ci poste boobu d'accord Je ma je xam nga man. Mhm. bugguma euh, euh, ñuy wax dina suis caméra la lettre <laughs> le 25 août 2016 la ko bind. Mhm. li ma doon je suis bu je suis man suis am ndam ci sama suis bëgguma je bul wax ne parce que président amatul fal kenn du ko wax ne ko lii d' accord ma ci Ablaye Wade dafa d' accord ñu koy wax lii d' accord ma a a été ouvert maanaam ubbeeku di déglu ay ñoñom Ablaye Wade musul décider billaahi ñi mu war a waxal ji nga même lii mu mujj def nii mhm. am na ñu mu ci waxal xanaa kay dafa am ñu mu beddi waxu ci ñoom waxu ci ak yow d' accord beneen ñeneen ñu mu waxul ñoo xam ne mhm. musul décider te waxul ak ñoom beneen mbir Babacar kon nga xam ne loolu ngeen di wax naan ay président dafa amatul pal 2012 ba léegi est-ce que président am na ku muy fal dama laaj. Mhm. est-ce que tax na ñun ñu bàyyi ko. déedéet est-ce que tax na ñu bàyyi PDS. Mhm. est-ce que taxul ñu jàkkaarloo pouvoir bi di xeex ak ñoom. Mhm. ñaata ministre la Ablaye Bayoron ana ñu. d'accord non attends ma termine ana ñu. Babacar tontu ma ci loolu ana ñu. te ñu ngi ci ñu ngi ci pouvoir bi wala dem nañ ci feneen. d'accord kon ñun bu ñu bëggoon ay pal. décret rek. ñu dem wuti ko fa mu am. dafa am ñu jàpp ne. Babacar Gaye ak Oumar Sarr ñi mel ni yéen yéen ñi ànd alliance ànd suqali soppi tey fi ñu toll nii dafa am ñu bari ñu gis ni da ngeen ne ci mel lu am paradoxe seen ay jëfu démb ak jëfu tey ndax bu fekkente ni ci 2015 bi ñuy def congrès ni Karim Wade mooy doon suñu candidat foofu am na ñu gisoon ni yaa problème. ñen ndax war ñoo mën a am leneen lu bokkut ak situation bi ci des. kenn moo kenn moo ne d'accord ma ci. kenn Souleymane Ndéné Ndiaye donc loolu nga wax sànq teewu fa sax moo am loolu nga wax sànq mais ci biir ci seen biir parti bi bari woon nañu ne loolu lu jaadu amul ngeen nangu ko ça n'existe bu fekkente ni tey non amul amul amul amul ça n'existe pas Babacar ñëpp a àndoon dama ne la ñaar ñoo ne woon bugguñu Souleymane Ndéné ne carrément duma ci bokk Aïda Mbodj moo ne bu doon sagom ñu xaar ba ci kanam ñu def ko lu leer la wax d'accord

PDS day boycott élection présidentielle yi. ah yooyu fi la problème bi tàmbalee même ku ko ci kaw ci suuf am na ñu bari ñu jàpp ne lii am nii nekkul lu gën teewul ngeen àndoon ci kon tey situation bi lan moo fi mën a soppeeku dëgg-dëgg ba mbir yi toll fii moo jaaxal ñu bëri. est-ce que ñun dañu àndoon ci candidat ba pare àndatuñ ci. ñun dañu gunge non pardon dañu gunge kan dañu sos candidat. Mhm. dama la bëgg wax tuuti askan wi dégg ñun lan la indi candidat bi. waaye candidat bi ci man la jógee. yaa ko porté woon. non du porté. maa ko créé balaa ma koy porté man maa créé candidature Karim Wade. ba ba bàyyi ko reporté. novembre mi 2014 laa annoncé candidature Karim Wade. lu ko waraloon xam nga lan la. lu ko waraloon booba PDS mu ngi xeex mu ngi ci kaso bi. xeex bi xeex nañ ko xeex nañ ko loof ci lool. terewul Macky Sall tegu ci kaso bi. ma xam ne li ma gis da koy tëj kaso. mën nañ nañ soppi doxalin wala nañu yeneen galgal taal boo koy upp mu bañ a tàkk fu ne nga koy uppee ak naka ne nga koy uppee ci lu wér ba nga xamee ne mbir mi euh, danaa jox benn tegtal président Blade bi mu ñibbisee 2015 sama mag gaañu mois d' avril non mhm. mois de mars mhm. ba mu ñëwee di ma jàllee xam nga lu mu wax lu mu wax dafa wax ne bi ma lay nettalee léegi ci affaire sama relation moom naan mhm. fàttalikul fu mu ma defalee dara daf ci teg ne li ma gën a neex ci moom lima ma gën a neex ci moom ak li tax ma téye ko mhm. France laa tollu dégg mu naan dañu war a def kan, kan, Karim candidat kon xam nga ne du waaj waajuram moo sos loolu de mhm. dem nañ ba bureau politique bis boobu ñu koy bis bi ko jiitu ay ndaw ñëw nañ fekk ma sama kër don baragay bii tey mhm. ak yeneen i ndaw ne ma boo gaawul gaa ñi wax nañ ba président dafay annuler congrès kii bureau politique suba bi ma ko lu mu ne ma dañ ko wax ne ko candidature bi du jàll. Mhm. ma dem ci président Abdoulaye Wade wax ak moom la may wax ak moom mu maintenir ñu tenir la bureau politique ma ne ko jege bu subaa li ma gis ak li ma waaj ak li ñu préparé. Mhm. ak ñun ponkal yi la ñu wax ci biir parti bi. bu ëllëgee mun naa ah, ma ne ko balaa mu doon neex nga mënoon nekkaat candidat nga présenté wu ñun waa fédération yi dinañ jël Karim pour def ko candidat xam lu ñu ci jubloon. Mhm. dañ ko bëggoon jox statut wu candidat du parti bi gën a mag ci Sénégal te Karim Macky Sall dugal ko ci kaso bi pour que opinion publique nationale internationale mhm. Mhm. jamono bu ñuy wax dootuñu wax Karim Wade dañ naan candidat PDS bi d'accord seetloo lu mu jur lu mu jural Karim boobu lañ commencé boobu lañ commencé boobu lañ commencé ba Karim toll fi mu toll tey d'accord yow kan moo mënoon en 2012 mhm. teg 1000 francs pour Karim Wade voilà lii moo tax ma la question bi Babacar terminé pour dire candidature bi pare wuñ mhm. ci dañ ko topp di ko xeex mhm. Macky Sall du fi amee ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba ci dépôt ba ñu nekk ci nekk ci ba ci conseil constitutionnel ba ñu demee bañ na amatul mhm. ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom jàpp ko pour mu nekk candidat mosuñ ko lâché am na ñoo xam ne dañu def plan B man jàppoon naa ne jamono bi nga xam ne conseil constitutionnel waxoon na ne léegi nag mënatul ne candidat. Mhm. PDS waroon na am plan B. te loolu wax naa ko président Abdoulaye Wade ba ma demee Doha. voilà kon donc jàppal ne li ngay wax nii. Mhm. Euh, imaginaire rek la mais ñun PDS on est tellement lucide ci lu ñuy def. Mhm. ay ñu responsable nañu waaye du ñu ŋànk dara ba pare dem ba ci biir ñu koy lâché ñun mosuñu bàyyi lay Wade ci bëgg-bëggam. loo xam ne dafay jëriñ Sénégal mu suñu bàyyi Karim Wade ci tolof tolofam ba ba muy mhm. génn dëkk réew mi dem Doha bàyyiwuñu ko ba candidature am bañ koy bañ bàyyiwuñu ko damay bëgg mu leer. d'accord parce que moo doon suñu candidat. bàyyiwuloon ko c'est vrai mais loolu pare c'est derrière nous bi voilà justement dafa mel ni combat bi ngeen doon mené 2012 c'est vrai évolution day am ci wàllum politique. mais tey bu fekkente ni tey président Wade jël na parti bi def refonte teg ay nit ñu bees dafa mel dafa am lu mu gis ndax yéen ñi fi nekkoon boobaak léegi 7 ans ci bim nekk opposition ak léegi <laughs> est-ce que nekkul leen ni gisul ni da ngeen doon ay responsable euh, local amul leen base politique bu dëgër ah mu ne léegi dina soppi indi ay nit ñu dëgër ñu mën a xeexal parti bi ndax parti bi ñi ñu fal da nga war indi wat kan moo ci am section ci ñuy fal ñiñ fal ñëpp wax ma kan moo ci yor section kan moo ci am section section kan moo ci am section mais am na ñu dëkk ci seen gox yoo xam dañ fa nekk ay maire nekk ay ndaw am avenir ci politique xam nga politique am base politique aussi ah, ah, am base politique euh, ñi ñuy génnee amuñu base politique ñu bari ci ñoom xëy na seen base damay damay laaj ñi ñuy génne amuñu base politique ñu bari ci ñoom seen base woyof na ñu bari ci ñoom seen base woyof na ñen ñoo dama bëgg nga wax ma ñen ñoo am base ñi nga xam ne amuñu section déet xam nga am section jiite ko ak nekk ci gox am fa base politique. ay lan mooy base politique loolu section loolu nga yor section boobu la nga yor fédération bi. mais boo yoree base boo yoree fédération boobu. est ce que mas nga taxaw taxawal parti bi taxawaay goo xamante ni bi da nga fay mën a jël ca gox ba nekk fa maire wala nga nekk fa président conseil départemental wala nga nekk fa président conseil régional sax wala nga nekk fa ah, ñaari yoon député bien sûr attends mhm. wala nga nekk fa ñaari yoon député mais est ce que la fa nekkoon ba tey ma nga fàndi ci base politique euh, euh, ma mhm. euh, bu fekkee da nga jàpp ne Omar Sarr représenté wul dara dagana dama la jox exemple rek mhm. bu fekkee da nga jàpp ne ku musul gagné bureau de vote wala ku musul gagné ku masta conseil municipal

man de dama la soxloon soxlaatuma la bàyyi naa la. d'accord loolu nga bëgg a justifier. suñu temps bi ngi sori est-ce loolu nga bëgg a justifier. suñu temps bi ngi sori. non est-ce loolu nga bëgg a wax non loolu damay analyser. xool est-ce que loolu nga wax loolu la tekki. loolu la tekki mën na ko tekki tamit ça ah, dépend jeex na kon ko noonu mën na ko tekki na ko a biir dañu jub élection locale xëy naam dañ ko dàqandi kenn xamul exactement ban date la war a doon mais ci kanam la moment bi lan mooy avenir PDS ak élection locale yu ñu dëgmal bu fekkente ni am na ci li kanam xamaguma ko pour ñaari raison

bu ëllëgee wa Kaffrine bu bëgg dem élection bu parti bi décidé demuñu élection dana déglu wa ne dem élection danañu dem élection. ci nga waxé ni ma diké wala kuñ ci de rek. libéral lañu mhm. nañu libéral ñu des ak mom ba mu des ki nga président Macky Sall ndax nekku ni foofu la sa ñàkk déggoo Maître Wade nak tàmbali nag deug dëgg ndax tamit ya nga doon wax sàng ñàkk sàmmonte règlement wu parti bi mais secrétaire secrétaire national bu jëlee dogal tamit wax limu wax ñu bari ànd ca nga dem ni sama fédération bu kafrine dana dem élection mi ngi bayyi nit ñi xam mhm. décision wu congrès wala décision bureau politique secrétaire général national xam nga la mooy cëram moy mhm. mu coordonner parti ni muy doxé xam nga luy cëram moy mhm. décision yi nga xamné instance nationaux yi ñoko jël instance nationale mhm. muy congrès wala muy bureau politique mu doxal ko d'accord ji nga loolu bu weesul man euh, situation politique bu yexsé rek dama koy analyser na mu té jamono bu joté ma jël sama responsabilité xam nga nit mooy and ak mom day baax des fois mu xamné yaangi fi man par exemple man mako ko tànn mu nekk sama njiit d'accord comprends mhm. ci ay sart tant que ñu ngi ci loolu lu mu def rek dina ko ci jàppale d'accord am na neen mbir bu ñëpp di waxtaanee muy tolluwaayu réew mi ci wàllum koom-koom alors tey yaa ngi doon wax ni PDS fi mu toll tey wurut a nekk lijjanti mbirum boppam mais d'abord taxaw ci mbirum réew mi tey ndax ngeen gisee Sénégal tolluwaay bi loolu waxuma ko dama ne waxuma loolu <laughs> ah d'accord dama ne mhm. réew maa ngi ci ay tolof tolof yu metti mhm. PDS mënoon def leneen lu dul di créer boppam ay des ay problème ah d'accord loolu laa wax. Ah, waaw n'est-ce pas. réew mi li fi jafe réew mi fi mu toll tey. ñëpp xam nañ ko li fi jafe-jafe nit ñaa ngi koy dundal seen bopp mooy ndóol mooy ñàkk liggéey mooy ay tolof tolof inondation mooy problème mu pétrole ak gaz bi nga xam ne ñëpp gis nañ ne eh, président Macky Sall li ñu fi yor gis ci koom. Mhm. rakam Aliou Sall dugg na ci ba takk ci rëpp. Mhm. gis nañ ne réew mi ñàkk na koom ba li nga xam ne mooy entreprise yi fayatuñ leen dette intérieure bi dem na ba. Mhm. société yi daan liggéey ci réew mi taxaw nañ. Mhm. ba mu indi ndóol. Mhm. njàng mi sooxee na ci wàll bu bari paj mi yaa koy yëgal sa bopp. ba nit ñi ñu ngi kaas naan lu tax nit ñi surtout kilifa yi. ku ci feebar génn bitim réew. ba booy faatu sax en général. fa ngay faatoo fekk na waroon nañ jël alal ju bari mën ko def ci dispensaire yi. réew mi mhm. jarul nit ñi euh, man opposant la su ma ko waxee mën nañ jàpp ne damay politique mhm. mais sénégalais bu nekk mooy yëg boppam ci réew mi fu mu toll mhm. tabaski gii ñu génn sénégalais yi sentir nañ li nga xam ne mooy jafe-jafe ci réew mi bu xar amee it nit mënu ko jënd loolu ñëpp yëg nañ ko mbay mi gis nañ situation bi nga xam ne tey ci monde rural bi bi nga xamee ne euh, maanaam pluie yi taw yi yéex naa ñëw. Mhm. gouvernement bi peut-être mënoon na am beneen taxawaay bu dul seetaan askan wi ba nga xam ne tey dañuy ragal seen nawet yàqu ba ñuy wuti ay xaal commencé ko ji. Mhm. pour mun a am leneen lu ñuy dundee pour ëllëg. d'accord enfin. Mhm. ñaari taw ñett mbënd mi ñu doon wax ne jeex na fi delsi li gën a garaaw mooy yoon yi dañ doon wax ne fépp yoon la léegi. désen ay yoon yu def. dañ noonu fépp yoon la dañ ko désenclavé réew mi mhm. boo seetee gu démb Bakel ñu ngi marche diggante boobu naan seen benn yoon baaxul Fuuta ga nga xam ne ñëpp dañu wataloon président Macky Sall. Mhm. ñoom seen bopp ñu ngi jooy seen yoon. ba accident yi di bare di bari di bari au lieu que ministre bi nga xam ne moom lañ ko dénk diagnostiquer situation bi qualité oto yi qualité yoon yu yàqu yi mu ne lépp c'est des erreurs humaines maanaam nit ñi daal. ñoo tax bu dem ci ay juróomi téeméeri nit. Mhm. ci at at mi bi mu commencé ak léegi faatu. ci mhm. afro accident. Mhm. loolu dafa jot nit ñi taxaw def jàngat seet naka lañ koy saafaraa. d'accord parti démocratique sénégalais rôlam mooy mun bokk ci leadership boobu. maanaam joxoñ yoon. boobu ba léegi boobu ba léegi boo seetee daaw daaw jéeg ba fi ñu toll. PDS problème xam nga lan la am. candidature Karim Wade PDS problème lan la am ndax dañuy defaraat parti bi. PDS mooy dañu fi jëlee ñii teg fi ñu ci des or li ñuy askan di xaaree mooy ñu wax leen ñun bu ëllëgee. Mhm. wan yoon lañ war a bëgg a jaar ba lii seen i soxla ñu nekk ci. Mhm. walla ñu saafara ko ndax dañu fi jëlee woon 2012. waay il faut que ñu wan leen taxawaay beneen burul bi ñu gisoon 2012. Mhm. il faut ñu wan leen yeneen pexe yu dul li ñu yoroon 2012 pour que bu ëllëgee ñii nga xam ne ay ndaw lañ tey ne ci sumb ci biir eh, géew politique bi. Mhm. te commencé cee ŋeeñ. parti démocratique Sénégal dafa war a xool ñooñu naka la ñuy def face ak. mais loolu ndax dana ma nekk ak situation bi ngeen toll. mais moom laa la wax moo tax ma ne la li ma jaaxal mooy dafa mel ni dafa mel ni dañu toog dafa mel ni dafa mel ni loolu rek la ñu doon woote. Mhm. li ñu bëggoon mooy balaa ñuy dugg ci dara. Mhm. mais ñu woote waxtaan élection yi bi ci génnee xam nga lan moo gën a coow li. génnee élection présidentielle yi am na ñu bëri dañ dem wate yi malgré que président dafa xoon ne bu kenn wote ji nest pas mhm, mhm. mais dafa am ñu bëri ñu dem wote ji mais ñooñu wote ji lan la ñu waroon def ak ñoom mhm. li ñuy wax da nga demoon wote ji yow génn nga parti ah bon ah, nekk lu jaadu aussi ah du jeex euh, Pikine gi am nañ ay yoo xam ne ñu bëri dañ jàpp ne dañ wax ne boole bokkatu leen ci parti da ngeen àndoon ak ma dikke ñi loolu lan la ñu waroon def mooy dajale waa parti bi ci bureau politique mais naam woote woon nañ ko de ba mu des ay fan bañ préparé li nga xam ne mooy convocation yi. Mhm. ñu xëy rek ne nañ ko bàyyi buñ ko def. Mhm. ñu ne déet waay ñu toog ba mu yàgg ñu ne kon nañ wote comité directeur waxtaan. Mhm. ñu toog ba mu yàgg ñu ne non comité directeur duñ ko def. te loolu ci jubloon xam nga pour def lan la. def bilan wu suñu douze ans sept ans yi ñu nekk ñun di yëngatu. xool naka la ñuy defaraatee parti bi pour dem ci kanam. coow li en réalité foofu la commencé. ma wax la loolu tey article bal doon wax. waaw mo nek ni mooy ban pour rek wax ni du polémique ak yow motax dafa rek mais juste rek nga wax ni nekul ni man ma koy wax. mais li ah, ah, ah, Babacar gay mhm. titre le journal nga ma lire demal ba ci non déglu rek titre nga moom rek waaw titre déglu mhm. franchement. Mhm. ci suuf lima fi gis Omar Sarr Babacar gay Aïda Mbodj ont tous dénoncé le coup que Macky Sall est en train de faire pour déstabiliser le PDS en se servant de leur frère Modou Diagne Fada alors.

Moussam am j'ai du respect pour l'homme politique Quel est le pour l'homme politique Pourquoi il ma traité? traité quoi le trahir il a fait son choix de quitter le parti mais le droit am la mhm. bu droit sañ-sañ parti parce que parti dañ de bu voilà vraiment Président, le pour man <laughs> ah, tout le temps bu ma vraiment pour ma euh, jéglu déjà askanu Sénégal ci euh, peut-être yenn cadeau yi parce que yegg nañ fo xamné mhm. il fallait peut-être ma wax li nga xamné mo mengo méngoog si man. Euh, wax nga deug foog naa ay yoni yoni maa ngi ñëw di la wuyu si émission mais bëgg na ci njëlbeen foog naa waxoon naa la ko dama bëgg ñuy am émission yoo xamné da ngay bàyyi nit ñi ñu wax seen wax so amee question nga poser ko. parce que ñun lool motax ñu ñew fi répondre à vos questions. d'accord mais bu leen japp né yéen journalistes yi yéen mom moom askan wi ba. lu ngeen foog ne li ngeen wax rek loolu askan wi di téye laaj moo la war mhm. tontu mooy sama jër jaajëf Babacar Gueye waaye tamit ñu nit <laughs> duñ mën a jox kenn antenne ngay wax tam lu la neex rek il faut ñu poser ay questions pour askan vraiment kon <laughs> beneen émission ak beneen gan ci beneen sujet ngeen wéy di ànd ak suñu programme ci di TV jàngeen jëf ñu bokk fanaan jàmm DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.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 الله أكبر الحمد لله الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة مشاهدي ومشاهدات دي تي في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نباخو دي سيطان دي تي في روتي نجتاي وقتان بيدن دين كاني nuyu nañ leen fi leen daan nuyoo di leen baal xaq di leen baal di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal di giital si nuyoo bi ak ziar bi kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ci anam buñ ko féetewoo yàlla na yàlla kàttanal leen ba yi nga xam ne yenoon nañ ko moo woyof ñoom incha allah di bàyyi xel ne ko noonu mbokk yi nga xam ne ñu ngi si bàmmeel yi yàlla na yàlla xaare leen aljanna yërëm leen ñi giital si borom kër gi di benn baas Jaañ ak Sayda Zeynab Fall ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo leen fay fekki ak ñi nga xam ne fekk nañ leen fay incha allah di bàyyi xel ñi taw a tëdd si bërëb bu fajukaay yal na yàlla fëgg seen i kër ba ñu delluwaat seen activité ñi am leen tey yoon ba dem ci yoon yàlla nañ delluwaat ci yoon te buñ fa jàddaat incha allah di bàyyi xel mbokk yi nga xam ne daan toog fii ku mel ni Makhtar man yaakaaroon naa ne tey sax dina ñëw ndax ku ñu xool xam ne tabarkàlla macha allah waaye yàlla na ak mën-mën di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom doon ak ñi ngi ànd ak comme ñu daan ànd ak moom Serigne Fallou Alaaji Fallou borom logique di ko nuyu bu baax di ko dalal jàmm ñi ngi ànd ak euh, bàjjen Louise mi si tubaab bi xawoon nañ ko nga a gis tuuti <laughs> waaye xam naa yaay moo jóge penk mu doon ko dalal ak madam Fall soxna Roqaya ak mbokk bi nga xam ne moom lañ àndal tey si waxtaan bi ñu jaajafal ko bu baax di ko bàyyi mu nuyu mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah euh, maa leen nuyu yéen ñëpp yéen ñi nekk ci plateau bi di nuyu ñi nga xam ne aussi ñu ñuy seetaan mm-hmm. euh, man Cheikh Diop laa tudd mm-hmm. maa ngi jiite centre be ñuy wax centre Jacques Chirac mu nekk Thiaroy yi mm-hmm. te muy yëngatu ci lépp loo xam ne dafay xeex wàllu drogue dafay xeex wàllu drogue ak ñoom seen Alaaji Fàllu mm-hmm. waaw ñu ngi lay nuyu biraama di nuyu euh, Cheikh Diop mm-hmm. euh, jiite centre Jacques Chirac bu Thiaroy yi waaye tamit euh, soxna Roqee Ngom ak soxna Louise nuyu ñëpp ñuy seetaan DTV ci émission bi di ndénkaane madame Fall soxna Roqee Oustaz ziar naa la nuyu ñi ma bokkal plateau bi sëñ Fallou bàjjan mi ñu namoon lool ak sunu gan di Cheikh Diop waaye ak mbokk yi safoon dénkaane ci DTV ci waxtu wi. Liss tey da ngaa ñëw rek am loo indaale bëggoon koo wax loolu lan la lu doon. salaamaaleykum Birama <laughs> maa ngi lay wax ne namoon naa la di nuyu grand Fallou di nuyu madame Fall gis naa ne doxee boo ko ne madame Fall day kontaan quoi. loolu ah, moo ah, j'arrête de dire roxee léegi madame Fall maa ngi dafa baax ci nit waaw dëgg la dëgg la ay galon la <laughs> di nuyu monsieur Diop bu baax mm-hmm. baax di saluer liggéeyam <laughs> di xam ne li muy def yombul yombul waaw ah, di ko ñaanal jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax amiin di ñaan fi jàmm sax mm-hmm. sëñ bi Diop waaw euh, yow yaay jiite centre centre bu Jacques Chirac n'est-ce pas yéen xeex wàllu drogue ak lépp lu aju ci wàllu ñollu mm-hmm. lu xale yi di jëfandikoo euh, mbir yi fan la toll xeex bi yéen a ngi ciy am ndam ba léegi yéen a ngi yëg ne ñi ngi seen kaw euh, liggéey bi ñuy def fi mu toll mën nañ wax ne euh, mu ngi avancé parce que centre bi sëñ Fallou mi xam na ci dara euh, moom daanaka ñoo dëkk mhm. centre bi yàgg na mhm. ñu ngi ko taxawal année 1995 ba léegi ëpp na ñaar fukki at yàgg na donc am na liggéey boo xam ne def nañ ko ci diir boobu Eh, am nañ ci ay ndam mm-hmm. am nañ ci aussi ay jafe-jafe mm-hmm. ndam yi mooy ñun dañ jàpp ne ñuy jëfandikoo drogue bu fekkee ne yow fexe nga ba génne ci kenn rek mm-hmm. ba mu bàyyi dellu doon nit kam doonoon avant muy jël drogue bi loolu rek ndam la ndam la walla te yàlla def na bëri na nit ñoo xam ne nag génn nañ ci eh, gannaaw yàlla liggéey bi ñu def ci ñoom moo tax macha allah liggéey bi nag du ñun rek ñoo koy def dañ ko ànd ak ay partenaires parce que bu ñu demee ci wàllu faj dañuy ànd ak ay ñoo xam ne seen euh, liggéey ci wàllu woowu la maanaam ñoom ñoo féetewoo wàllu faj mi parce que ñun bu ñu faj sant bi ay médecin nekk ñu fa ñuy faj hmm. liggéey bi ñuy def beneen la xëy na ci kanam dinañ ko gën a gën a yaatal mais wax rek ne liggéey bi loolu jàpp nañ ne ay ndam la hmm. euh, am na ay jafe-jafe aussi loolu aussi dañ koy wax parce que Euh, am na ñoo xam ne ñëw nañ fa ñu doon leen jàppale pour ñu génn mais liñ seetlu mooy mhm. ba léegi bàyyiwuñu donc loolu aussi euh, il faut ñu wax ko dafa bokk ci liggéey bi mhm. am na yeneen xeetu jafe-jafe yoo xam ne xëy na bu ñu demee ba ci biir waxtaan bi dinañ ci gën a dellusi mhm. voilà kon loolu mais bu bu dee bu dee wàllu jàngat bi comme ni nga ko waxee ña nekk foofu duñu ay docteur yow mbir mi naka lay processus bi naka lay demee fan ngeen di commencé ak ki nga xam ne dafay tawat wala boog da ngeen a gis ne soxla na ndimbal mhm. ba àgg ak moom ci li nekkoon ci moom mu deñ xam nga xam nga sant bi li nga xam ne moo ko tax a jóg euh, mooy li tubaab yi wax prévention mhm. maanaam fexe ba nit ki du ko jël du ko jël wala bu ko jëlee aussi ñu taxaw ko mu génne ci mhm. loolu mooy suñu liggéey fexe ba nit ki du ci dugg nag rawatina xale yi parce que mbiru drogue aussi bu ñu waxantee dëgg ñi ko ëpp ñu koy jël ci xale yi la Euh, fexe ba duñ ko jël bokk na ci lenn li mooy di di di di waxtaan ak ñoom hmm. di def ay campagne de sensibilisation di leen yee ci li nga xam ne moo ci nekk bu fekkee yaa ngi jël drogue yi leen ci mën a fekk hmm. ak drogue bi ci boppam lan la mën a yàqal nit ki ci wér-gu-yaramam ci àddunaam de façon général hmm. donc loolu ay campagne la yoo xam ne dañ koy def di dem ci askan wi ànd ak ay association di def campagne yooyu ci biir gox yi mais ci biir centre bi aussi dañ ko fay def hmm. centre yi boo fa demee dañ fay organiser ay waxtaan am na ay activité sportives yu fa am parce que ñu dañ jàpp ne bokk na ci lenn li nga xam ne moo tax xale yi di dugg ci wàllu drogue yeneen xeet yu mel noonu ñàkk lu ñu def ñàkk lu ñu def am temps bu bari am temps bu bari jàngatuñu dàq nañ leen école nekkuñ ci métier seeni waajur téyewu leen et état bi aussi mettul tegul en place ay structures yoo xam ne mën na accueillir xale yooyu yëpp donc taxawaalu bu metti bi bokk na ci li dugal xalé yi ci yu mel noonu mm. looloo tax ñun ñu né bokk na ci li ñi def ubbi ay espace mm. di fa accueillir xalé yi suba ba ngone di len encadrer à travers ay activités sportives bo démé centre ba dañ fay def basket bu am solo basket bi d'ailleurs moo ëpp ci li xale yi di fréquenté parce que moom lañ gën bëgg mm-hmm. am na yeneen xeetu sport yu fa am dañ fay def karaté dañ fay def boxe dañ fay def yeneen xeetu sport mm-hmm. mais daal basket bi moo ci ëpp effectivement mm-hmm. solo donc loolu dañ koy def pour mën di téye xale yi soo ba ngoon bu ñu fa ñëwee am ñoo xam ne dañ leen leen jàngal sport mais yemuñ ci loolu rek parce que bu weesoo sport bi dañ leen di waxtaan ak ñoom aussi ci lépp loo xam ne mën na leen yàqal mbiru drogue mbiru yeneen yu mel noonu donc loolu ay activité la ñuy def maintenant liggéey boobu yàgg nañ ko def d'ailleurs mooy liggéey principal bi nga xam ne la centre bi eh, saxoo woon depuis 1995 mais dañ dem ba ci bir am nit ñi nga xam ne dañu am ay problème jël drogue ba mu am fu mu leen toll ci wàllu wér-gu-yaram ñenn ñi mu jàpp seen xel ñu ñëw centre ba pour ut ku leen dimbale loolu bi mu amee ñun ñu taxawal suñ biir aussi benn kuréel boo xam ne ku fa ñëw dañ la déglu dañ la dalal dañ la euh, andil li ñuy wax ci suñu jargon accompagnement psychologique Euh, maanaam déglu la euh, euh, fexe xam yow mbir mi lan moo la ci dugal fexe aussi xelal la mm-hmm. dellu si la sa bopp wan la ne lii nga nekk mën nga ci génn mën nga ci génn ci boo amee sa volonté ak ñu la jàppalee nga faju mm-hmm. donc loolu mooy liggéey moo xam ne ñu ngi koy def ñooñ nag saa yu ñooy ñu dalal leen comme ni ma ko waxee sànq dañ leen di yóbbu ci ay médecins yoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom et que ñooy war a wàllu paj bi mais ñun dañ leen di gunge pour ñu réinsérer mm. euh, au niveau social ak euh, au niveau de la famille surtout. macha allah loolu introduction la woon ci waxtaan bi. mais mm. dinañ jël si mu gën a yaatu. tout à fait euh, dafa mel ni Awa taxaw na pour def revue de presse bi. Awa salaamaaleykum foo nekk ak kan nga taxaw maaleykum salam Oustaz Birama ma ngi lay nuyu nuyu ñi tok ci plateau bi nuyu également téléspectateur DTV. Hmm. ñi ngi fi taxaw euh, ci centenaire mang ngi fi taxaw ak euh, ben way xamna dama koy bàyyi mu nuyu téléspectateur yi wax également ban information moko gëna marqué bu mu joté lire li nga xamné modi di journaux señ bi ñu ngi lay nuyu tur bi nan la. ah Sadio la. Sadio ñu fekk la fi ngay lire li nga xamné modi journaux ban information moi ci gën attirer sa attention. moi Macky Sall a été euh, à la résidence de monsieur Wade à la vieille de la Tabaski. yow information Bob Noko ko en tant que sénégalais. Euh, man ni ma ko jàngatee mooy xëy peut-être man je vois que peut-être débat média quoi mais ça n'existe pas ça ne peut pas d'être quoi mënul nekk daal. lu nga ne mënul nekk. circonstances yi mënul nekk dafa am circonstances yoo ne mënul parce que bu fekkee ne da nga xool. Euh, sûrement politique nga diko suivre suivre fay am lo xamné ne buñ la mënul nek da ngay xamné li lii mënul nekk mais dañuy faral di wax mom politique mom kenn du né dara mënu né chaque jour nga gis. lu parce que xam nga levier a une haine de sa propre euh, famille mom euh, ñi nek tay ci pouvoir bi yépp ci mom lañu ñu par rapport nit du japp sa doom. presque des années dans mu jël ko prison ba paré nga dem Touba déclaré dem kër chef religieux yépp nga déclaré ba paré ñëw nga nek mu nek sa propre complice mënul nekk mënul nekk. kon yow ji gëmoo ni euh, jiboo mën na am ci diggante de ak Macky. Euh, je ne pense pas parce que xam nga aussi Wade c' est un vieux boo xam ne di euh, calculam ci politique kenn mënu koo par exemple calculer ba xam preuve yi muy joxe mais su fekkee ne da nga suivre conscience politique fii nga Sénégal depuis 1960 ba tey dafa am règlement bu muy doxee dafa am lu ñu naan. Euh, euh, par exemple yoo xam ne ay ay ay nit ñoo xam ne dañuy def benn jeu boo xam ne

ak nu départ premier ministre ministre de l'ensemble fal ministre de l'intérieur far ko leneen ak leneen bi ñuy tàggatoo naka la problème bi tax ñu la conscience na sénégalais ci ne mënul day am après bon mag ñi euh, population bi ak ñi nga ñoo wër mi wax nañ ci pour mais mënul dafa c'est impossible waay ñu ngi lay remercier rôle la rek bu ñuy joué nii rek pour bon population bi giif mais mënul nekk ñu ngi lay remercier ok merci beaucoup uh-huh. waaw Oustaz Makhtar uh, Oustaz Birama uh, nga xam ne moom la jot a wax xam naa dañuy def rek lu dul euh, gën a ñëwaat ci yeneen këru yëglekaay yi lu ñu wax li ci gën a fës euh, bokk na ci laas moom mi ngi ñëw euh, ci jamono ji dee bu bëri bu ñu nemmeeku ci réew mi ndax mi ngi wax ni gis nañ ñi ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakken fële ca Kébémer mu am juróom benn yoo xam ne ñi ngi ñàkk seen bakken ci aussi ñu nemmeeku it ci Parcelles Assainies benn touriste boo xam ne dafa ñàkk bakkenam ci ab lakk-lakk buñ jógee ci foofu dañuy ñi di wax euh, ginnaaw taw bu métti bi fi amoon fi nga xam ne moo di cimetière sancub euh, géej moom nag dafa fees dell ak ndox ba ñu nemmeeku ay yax yoo xam ne dañu doom suleeku askan ba fa dëkkee nag ñoom ña ngay joxoñ baaraam tuuma ki nga xam ne moo di maire bi ndax nee nañ ca jamono jële ñu génn maire bi moo fa amaloon ab euh, sëkk bu ñu jógee foofu dañuy dem ci le soleil mom mi ngi ñew ci ciowal 94 milliards yi fi jot am ki nga xam modi maître El Diouf mom nak nenañ dinañ porter plainte euh, ki nga xam modi Sonko la tribune fait ko ci wet bi ne ko moom El Diouf nena Diallo dina porter plainte Ousmane Sonko les éco ne ko eh, maître El Diouf mom nena na ki nga modi Sonko dañ ko wara tek loxo ba nopi dal di koy tëj ci kaso bi nak ciow li dafa nek sàcc boo xam day dañuy dem ci le quotidien moom mi ngi ñëw ci coow li am ci PDS ci njiit li di wax euh, ñi nga xam ne mooy Ziguinchor ak euh, Saint-Louis ñoom nag ab Wade la ñu jog loxo. bu jógee foofu dañuy dem ci Vox Populi moom mi ngi ñëw ci euh, Cheikh Tidiane Seck mi nga xam ne moo bokk ci parti cadre yi moom nee na Macky Sall nag dañ koo tegoon euh, bët mu dem ci nga xam ne moo di jouru tabaski ci ngoon ci këru Ablaye Wade moom nag euh, Cheikh Tidiane Seck moom nee na ki nga xam ne moo di Karim Wade dafa mel ni bëggul ñu wax ko dëgg ndax nee na ab parti kenn mënu ko jiite ci procuration la tribune moom mi ngi ñëw ci inauguration bi nar am ci juma Masalikul naan moom nee na bu ñu moytuwul ki nga xam ne moo di ab lay Wade ak Macky sàll nag danañ fa tase ndax Macky Faye nee na mun nañu xaar ñeneen président yoo xam ne dina ñëw ci boobu boobule inauguration ñu jeexale ak libération moom mi ngi wax ne waa ji nga xam ne ñu ngi ko doom recherché ci coowal drogue bu fi amoon moom waa ji sax teg nañ ko loxo mi ngi wuyoo ci Ibrahima Thiam ñi gën koo xam ci Toubay lii nag moo gën a fës ci këru yëglekaay yi Oustaz Birama jërëjëf soxna Awa yal na yàlla fay la yiw waa ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Awa kon Awa Badji la woon moo ngi doon niral revue de presse bi xam naa dañuy ñëw si Serigne Fallou ah. Serigne Fallou lan nga gis si jàngat revue de presse bi. am na politique am na xeeti accident yi tegaloo fan yi ak ay musiba ay sénégalais yi faatu waaye li ci gën a ràññeeku rek mooy politique moom day wane melokaanam. Mhm. moom kenn mënu ko maîtriser mu ne Macky dem na seeti Ablaye Wade tamit. dañ koy jàppee noonu rek ndax yu bëri xew na fii te ñiy seetaan du ñu mën a gëm ne lu war a mën a nekk la kon daf mel ni politique ay calcul kese la mhm. waa ji wax na ko sànq Abdoulaye Wade xam na ñaw gi ñam ñaw ci wàllu politique mhm. bu demee bay lëkkaloog Macky Sall xëy na bu dee bu amee tam du lu ñuy siiwal waaye lu ci mën a am lu nekk rek mooy politique moom da ngay seetaan ba ci kanam rek bu sottee nga xam ne sotti na ak loolu mu wax tam ni Abdoulaye Wade mën na dajeeg Macky Sall Massalikul Jinaan lu mën a nekk la ndax Abdoulaye xam nañu Euh, cër bi mu am ci yoonu murit lu mel noonu xëy na du ko bëgg koo wuute waaye tamit Macky Sall tamit mooy njiiti réew mi mooy kilifa gi bu ñu fa dagee tamit gis nga loolu tax rafetoo rek moo am solo hmm. ay nit bu ñuy ñaawoo ba war a dagee ci lu rafet bu ñu jubawul rek day feeñ hmm. fi mu ne bu ñu xejoowul wala xajalante ci barab ba rek dafay ñaaw kon politique dañ dañ koy politiquer rek waaye dafa dafa war a dëppoog suñuy valeur maanaam warmaalante ak joxante cër warmaalante ak joxante cër ma madame nan saxati madame Fall madame Fall bismillah répété ba mu àgg voilà madame Fall <laughs> sëñ Fallu campé na ko waaye tamit euh, li ma si gën a tee mooy li am jamono ji ci kaw tali bi mm. Birama mm-hmm. je que ni jot na tey oustaz ñu jëfe mesures yi nga xamante ne kilifa yi jël nañ ko jëm ci kaw tali bi ak accident yi ci am mm-hmm. jot na tey ñu jëfee permis à point yi nga xamante ne yàgg nañ koo wax ku ci def euh, lu ay njomme ñu ngi la retirer ay point ba keroog ñuy retirer sa permis euh, mm. euh, baax na ñu tabax ay tali baax na ñu defar ay oto yu bees mais li ñu war a def mooy nit ñi ñu gën leen a ñaax gën leen a sensibiliser tali bi li muy jël jamono ji comme ni ma koy waxee naan yàlla fi mu toll ni moom liggéey dafa toog Mhm. tali bi mu ngi koy fajal soxlaam mm. ndax l'accident yi bëri nañ démb rek ku gis li nga xamante ne moo xew ci yoonu ñaasiyaa bi juróom benn nit ñàkk ci seen bakkan ak oto bi nga xamante ne ci lañ nekkoon loolu nit munu fa woon a génne ak bakkan kon tey jot na kilifa yi jël ci ay mesures yu taxaw Birama accident yi mel ni ba ñu bëree woon gine président Sékou ci li nga xamante ne moom la ñu nettali ba mu ci bëggee jël ay matuwaay dafa ne dafay teg prix boo xamante ne chauffeur bu dàq dawal ñu toog dawal weer te accident amul ñu jox ko prix boobu ñu toog weer benn accident amul gi mu ne leen li ngeen doon def yéeg ne ko tey kon loolu comportement nit ñi war nañ ko changé hmm. yaakaar naa war na ci jël ay mesures ndax télé bi jamono ji li muy rey bari na télé bi jamono bii li muy rey bari na bàjjen Louise Birama man su ma déggee permis à point rek damay xalaat ni je suis pas d'accord si permis à point. est-ce que pare nañ pour des dire que. parce que bu man man bu man permis dañu ko jël. ah ndax lan. te <laughs> yàgg dara non dama xam ni. Euh, nu permis à téléphone xam naa ne. bon <laughs> non téléphone au volant sax léegi kii watul trop parce que yaa ngi am ay écouteurs yaa ngi am ay airpods et tout donc du coup c'est pas compliqué. Mhm. bien que kenn warul sax téléphoner au volant écouteur ak bluetooth ak lépp ci yem voilà. dama laa xam ne dama laa ne yow moom. nekk <laughs> xam euh, euh. suñu yëf. ah mais tamit man ragal naa ne bu ñu ko defoon tax da ngay kun kun nangu permis mu liggéeyante waat jotaat si permis fii si réew mi. non nekkagul suñu yëf c'est-à-dire que. Mhm. Euh, liggéey buy tax ñu egg ci loolu. eggaguñ ca. eggaguñ ci. est-ce que mais ñu def ko pour xëpp lise. oui mais xam nga xam nga si la la ñu war a commencer. Mhm. parc parc automobile Sénégal ñu xool oto yu màgget yi. service technique euh, visite technique. ñu mm. xol ñal la jox visite technique ñal la jox visite technique. tali ñu defar tali je pense que waruñoo xol ñi kay joxé ba paré ñi joxé di ñi délivrer visite technique ba pare. ñu non non délivrer visite technique. non ah. non seulement avant rek fa nga defee permis non benn nijaay moo fa nekkoon rek cest dire que moom demul sax auto école ba am permis kooku heureusement ba permis périmé na te amul auto mhm. il y a des de Sénégalais qui sont dans ce même cas là mhm. donc na la ñuy délivrer permis nit yi ndax mën nañ dawal balaa ñoo am permis mhm. est-ce que tali yi adéquat na pour nit dawal ci est-ce que auto yi ñuy dawal war na daw Sénégal ngay gis auto bu am 30 ans 40 ans di daw ba léegi maintenant aussi tamit auto calibre auto yi ah. est-ce que auto boo xam ne day def

biir àll bi nit ci sonn nañ torop da ngay gis tali boo xam ne day day daw ba si digg bi mu dagg les gens sont obligés de faire des détours yoo xam ne si la terrible bi c'est compliqué les gens souffrent dehors Sénégal yemul Dakar donc tali bi c'est un ensemble boo xam ne <coughs> ku nekk am nga ci cër mhm. mais je pense que gouvernement moo ci ëpp cër fuuf Sénégal yemul Dakar te à Dakar sax ñoo gën a ñoo gën a sonn booy à Dakar wa Dakar li ñuy dund maar day talib beneen aspect bi ah, beneen aspect nga baal ma hmm. euh, mooy lu ñu wax né euh, président Macky Sall dafa dem seeti président Abdoulaye Wade je pense que lolu bu fekké né amna parce que c'est pas une information vérifiée ah. bu fekké né lolu amna na lu ñuy rafetlu la lu ñuy rafetlu la ah et puis may est loolu priorité la ba ngeen ci ak dëkk bi toll mais non contexte bi mu ko waxee tamit mooy hmm. jour tabaski ci ngoon la taal otom dem waxee mooy presse bi dafa am yoo xam ne itam moom moo gën a nekk farata dëkk baa ngi nii dara doxul ñi ngi defar terre bi dawul arène nationale baa ngi jël ndox dëkk bi boo duggee ci banlieue bi fu nekk taana ndox kenn amul foo jaar mais yooyu noonu ñu wax ci moo gën a nekk dañuy jël tudd ñaari nit rek ba wala non man damay damay damay kii rek damay indi ah ndox mbokk faratal te en plus contexte bi mu amee sax jarul ñu koy analyser sax beneen aspect bi encore mooy Massalikul Jinaan bi ñu koy dem bi ñu koy inauguré je pense que Ablaye Wade teew ci waaw loolu moom cër la wax dëgg yàlla buñ ci àggee jàmm daf ci am doole daf ci am doole dinañ ci teew sëñ Diop loo gis ci euh, revue de presse bi euh, man li ma ci gën jàpp mooy mbiru accident yi mhm. parce que loolu je pense que tey sénégalais yëpp la heurté euh, chaque jour boo yeewoo nga dégg lim bu am solo ñu ne ñàkk nañ seen bakkan impression bi ñu am aussi mooy que dañ koy wax rek mhm. ça fait des années ñu ngi koy wax mhm. mais doo gis de façon pratique disposition yi ñu jël pour régler mbir yooyu et c'est ça notre problème aussi dañ koy dénoncer bu dalee ñëpp ñu ne métti na tiis la waaye duñ jël benn matuwaay pour loolu mhm. comme problème mhm. parce que jot na nag tey euh, ñëpp ñi nga xam ne am nañ ci rôle ci wàllu état bi ci transporteurs yi ci seen bopp chauffeurs yi ci seen bopp ñu jël véritablement ay matuwaay pour que mbir yooyu vraiment wàññeeku mënuñu wax ne accident du am mhm. réew mu nekk day mel noonu dafay xel mais Sénégal ampleur bi mu am jaaruwul jaadootul man nag jàpp naa ne li ko waral bi ci njëkk indiscipline la indiscipline loolu moom dañ koy wax te dee facteur bi ku essentiel mooy indiscipline ñi nga xam ne ñu ngi yor oto di dawal ci kaw tali bi man ci banlieue bi laa dëkk Pikine laa dëkk mais la fa xew kenn xam nu mu demee donc loolu c'est un facteur boo xam ne il faut ñu régler ko comportement ñiy dawal i foog ñu xoolaat ko ñiy dox ci ko tali bi aussi il faut ñu xoolaat comportement yi je pense que loolu bu ñu ko régler dinañu regle en partie euh, problème bi nga xam ne moo ëpp solo ci li nga xam ne mooy faat nit ñi ci tali bi soxna si wax na ko sànq ota état oto yi ñu am aussi dafa doy waar mm. ñun yàlla may nañu génn nañ réew mi dem nañ ci yeneen réew waaye Sénégal fii moom oto yi ñu am ñun rek ko dese fii ci Afrique sax laay wax Banjul gii ñu gën a jege rek ñoo ñu gën a oto oto bu am cinquante ans di daw fii ci dëkk bi danga koy gis du yoon je pense qu'il faut ñu xoolaat aussi véritablement lu ñuy renouveler suñu parc automobile bi mhm. jaadootul au vingt et unième siècle ñuy dugg ci oto yu mel nii ay car rapide ay njaganjaay ak ay clando yoo xam ne mhm. mais ñuy daw ci kaw bi pense que yooyu aussi ay musulman karape di baax na di ba nañu mais am lu ko gën sama classe gi de baax na. mais mais yob yomb yomb boo xam ne day jur yomb bi jur en tout na. baax na bàyyi leen di ba bàyyi lu ko xam nga xam nga Sénégal aussi. sama lay dugg ak ñu mais car rapide waxuñu car rapide en tant que tel. Hmm. c'est-à-dire car rapide mën nañu indi yeneen forme de transport yu mel ni car rapide. mais hmm. yàggul. mais ñoo gën a catastrophique mais ah, ah. loolu la ñu hmm. euh, euh, euh, car rapide yi baax nañu ñu ngi faj ay soxla waaye am na lu ko gën aussi. parce que effectivement conséquences yi nga xam ne am nañ ko si gis nañ ko. beneen bi nga xam ne moom laa ci bëggoon jeexale ci wàllu mooy wàllu corruption bi Ah. corruption bi lii ngay soxna si wax léegi moo ko andi. ñu lijjantil la permis mhm. oto boo xam ne saa yi boo ko gisee ñu ne am na visite technique jox nañ ko visite technique am d' accord nañ ne mën na daw oto boo xam ne koo gis rek da nga xam ne bii baaxul. corruption moo fa jaar. Mhm. Mhm. ñu jàpp la war la daan nga joxe 1000 francs wala 2000 francs ab policier wala ab gendarme loolu am na ci dëkk bi dañ koy wax te am na fii. ñu ba ñu dëkk. bokku na ci li nga xamné moy mooy créer situation yi mhm. bu fekkone ne képp ko xamné def nga lo warul def ñu tegg la li yoon wax bañ ci am lén lu ñuy seet aussi xëy na wañé yi mais suñu réew mi corruption da ko yaq donc moi je pense que yoyu dal bokku na ci nga xamné buñ ko réglé won xeyna accident yi de bëri dina wàññeeku mhm. discipline bi ak parc automobile ñu xaw ñu renouveler ko et ñu réglé question corruption bi ñu réglé question corruption waaw loolu moom c'est fondamental mhm. kenn mënul nangu un homme de loi en uniforme jàpp chauffeur parce que auto bi yor baaxul wala permis mi yor baaxul wala sax amul permis kooku am lu ko jox mu bayiko mu dem mm-hmm. te lolou amna ci réew mi mm-hmm. dañ koy wax mm-hmm. te dee encore une fois mais amna fi le comportement aussi dañ koy déplorer il faut que aussi au niveau de nos autorités ñu sanctionner mhm. comportement yu mel noonu mhm. donc loolu c'est important ñu def ko yaakaar naa loolu bu ñu ko réglé dinañu mhm. réglé lu bari beneen may jeexale loolu moom lu ma gën a soxal aussi dégg naa waa yi nga xam ne moo rëccoon ci euh, mbiru drogue boobu amoon port jàpp nañ ko ñuy féliciter effectivement force de l'ordre yi ci liggéey boobu ñu def parce que ñun jàpp nañ ne réew mi quand même ku fiy dugal drogue ci quantité yu mel noonu dañ la war a teg loxo def ci yow li yoon wax surtout yow loolu bokk na ci li nga xam ne ñun mm-hmm. liggéey bi ñuy def sax dana ko yombal mm-hmm. macha allah macha allah macha allah loolu moom kon ñoo ko dégg noonu ñi dem régi léegi te ñëw dugaat ci waxtaan bi incha allah bismillah ñu xoolee askan wu nekk dafay am lu koy gàllankoor ci ay jamono ñenn ñi dañuy jékki-jékki ne jigéen ñiy jaay seen bopp wala ñu wax ne góor ñuy wuyoo turu jigéen wala yu ni mel yenn saa itam askan wi am jafe-jafe wu toll ne ndaw ña fa nekk ñu yaakaar leen ëllëg ci dund ñooy jëfandikoo ñollu wala yu mel yu ni mel yoo xam ne mën na yàq seen xel gàttandu seen avenir ba fan yaakaaroon ñu àgg ba duñ fa mën a àgg mm-hmm. tey nag tomb boobu nga xam ne moom lañ jëloon démb ak mama Marie ba di ko jaajëfal ak mbokk yi mu àndaloon loolee Euh, jëfandikoo gi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo walla drogue walla li ni mel ak lépp loo xam ne rek bu xeetu ñol la luy màndiloo nit walla lu koy tàqale ak sagom tomb yu ni mel lañ bëgg a waxtaanee Alaaji Fàllu bu ñu demee ba ci société bi toll fii tey ñu ngi waxtaanee wàll wi wàll wi nga xam ne mooy tuux ak ya ci aju euh, booy xool 2015 gisoon naa benn gëstu bu ñuy gëstu woon ñu wax ne plus euh, presque zéro virgule nangam million de personnes yoo xam ne ci réew mi dañuy jëfandikoo loolu te góor ñi mën nañ 11 pour cent jigéen ñi nekk nañ ci 7 pour cent xale yi loolu benn gëstu boo xam ne gis naa ko depuis 2015 ban njàngat nga am ci loolu Alaaji Fall waaw thème bi am na solo ndax bu ñu nee drogue rek defe naa drogué yi ñoo tax ñu gën a wax ndax bu doon drogue bu ñu fi bàyyi la kenn laalu ko sax mën nañ ne du am benn effet ci société bi waaw waaye li ko nit ñi jëfandikoo moo tax ñu dem ba xam ne am nañ effet effet néfaste mm-hmm. yu baaxul ci wér-gu-yaramu doomu aadama xam nga société li koy composé muy ay doomi aadama te doomi aadama dafa am lu ko màndargaal mooy am xel bu demee ba xelam mu rocceeku wala xelam nëx wala xelam yàqu daanaka dootul bokk ci doomu aadama yi composé société bu war a mën a développé wu mm-hmm. ndax gis nañ fi ñu bëri ñoo xam ne tey jii bu leen loolu dalee dañuy mel ni ay marginaux dañuy mel ni ñoo xam dañoo beru wala ñu ber leen dootuñu sentir que ni bokk nañ ci société bi kon dafa mel ni drogue dafa ñëw nekk loo xam ne tey jii dafay perturber tissu social bi dafay perturber société ndax doomu aadama bu demee amatul xel daanaka moog yeneen mbindeef fii nga xam ne moo leen tane woon wala moo leen sax ëpp gën leen a jekku lu bëree bëri mhm. dañuy xaw a yem mhm. parce que nit ci am xelam la ñuy lay wanee ak niteem léegi nag bu drogue ñëwee nag léegi ñu koy jëfandikoo ñun toujours suñu préoccupation Cheikh mhm. mooy drogue boobu fan lay génnee fan lay jógee ci yan loxo lay jaar nu muy def ba agsi ci ñi koy jëfandikoo parce que bu ñu créé centre boobu. Mhm. ci xoolu banlieue ba muy Thiaroye mu nekk diggante Pikine Guédiawaye Malika Yëmbal. Mhm. loolu stratégique la. mel ngi ni kon étiquette bañ daan tafal waa banlieue. na ay drogue lañu ay agresseur lañu mel na ni kon foofa sensibilisation de proximité la dañoo dugg ci seen biir. Mhm. di mën a mën la sensibilisation. mais problème bi mooy ñun toujours li ñuy xaw a jaaxal. ci loolu Birama mooy drogue di nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo. am na xam ne xamuñ sax ko laal. xamuñu xeeti drogue yi yéen ngeen avantage yu peut être xamé drogue yi waye dafa melni bu démé ba am effet ci nit ki la ñuy xam kon laal na drogue soppeeku na ak li xamné loolu lako mëna mën jural ci mëna gañ doomu adama ak tam dootul am njariñ ci biir société bi nga xamné kon bu ñu bay waxtané drogue ci biir société melni kon am na ñoo xam bëgg nañ ñu dellusiwaat am na ñoo xam ne bëgguñu laal ñu laal ko kon da melni yéen ñaari cible ngeen am mooy ñi nga xam ne laalaguñ ko. Mm. ñu defal prévention ak tamit sensibilisation. ak ñi ko laal ba pare ñu jéem leen réinsérer. Mm. jéem leen récupérer. Mm. léegi entre ñoom ñaar ku ci nekk. drogue bu nekkee seen diggante. war nañ mën résoudre le problème. ndax ki ko laalagul dana xool ci ki ko laal ak ni mu ko soppee. ki ko laal itam dana xam ne waru ko laal ndax kii ëpp njariñ di ko ëpp njariñ ci société bi. mu mel kon toujours lu sensible lay doon toujours. surtout bu ñu déggee ñu ngi jàpp ay kilifa. xam ngeen jàpp bàyyi leen. drogue baa ngi dugg ba tey. nan lay tasaaroo nu mu def ba àgg Pikine nu mu def ba àgg Thiaroye mm. fan la jaar ñan ñoo koy joxe. Mm-hmm. dafa mel ni kon ca source ba ba tey source ba moom ma ma ngay ma ngay dox ba tey alaaji nag dafa mel ni leer na ndax toog nañu fii benn kilifa gu ñu xam ci réew mi koo mm-hmm. xam ne am na ay ndomba tànk ci dëkk bi mu wax hmm. maanaam xeet koor yi nga xam ne ñoom ñuy dugal drogue bi ci dëkk bi koo wax na ko ñëpp du ko dégg je me rappelle très bien Modou Mbacké ñaa moo ko doon introduire yaakaar naa mu Moustapha Cissé Lo mu wax ñi nga xam ne ñooy dugal drogue bi ci dëkk bi loolu kay xam na ñun ñoo ko fi dugal léegi kon bu ñu demee bay constater les dégâts je crois bien que xeex bi tam war nañ ko mën tàmbalee foofu ñu fexe ba bloquer réseau boobu hmm. comme niñ ko defee ci port Ndakaaru fan yëpp hmm. mu jàpp ay ponkal ñoo xam ne dañoo dugal cocaïne bi port bu ndakaaru nga xam ne loolu tey bu génnoon tasaaroo rek musiba lay doon mhm. waxuma laa bi li jotee génn ba noppi fan la jaar mhm. seen loxo la jaar ak ñi koy jëfandikoo parce que loolu dem aussi complicité waru cee am corruption waru cee am naxante waru cee am mhm. parce que effet yi la ñuy xool ñoom booy xool toujours dañuy constater les dégâts ci gis koo xam ne drogue yàq na ko ba noppi parce que drogue soppi wala mu yàq ko euh, mën na bañ am chance mel nam njëkkoon a mel mm-hmm. ndax ñàkkul ay séquelles ak loo xam ne mën na koo def ci aw yaramam ak tardé gum tardé mm-hmm. ak tardé gum tardé xëy na tomb yi bari na mm-hmm. tomb yi mën na bari mais sëñ bi bu fekkente ne question yi nga xam ne sëñ fañ fàllu yëkkati na ko am na si boo si mën a répondre waaw wala am na loo mën a dolli si kàddu yooyu dañ koy jaajëfal sëñ Fallou euh, wax rek ne euh, laaj na lenn euh, drogue bi fan lay jaar ba agsi ci réew mi agsi ci yenn gox yi Euh, fi muy jaar mais mooy fi muy jaar fépp rek ci àdduna bi gis nga mbiru drogue dafa doon problème boo xam ne àdduna bi yëpp la soxal état boo gis ma ngay teg ay moyen di jéem a xeex contre la drogue dëkk yu développé yu néew doole ci yam te fépp nag la nekk c'est-à-dire amul benn réew tey boo xam ne ci àdduna bi fexe nga ba drop nekkul sa biir réew amul même États-Unis bi état bi gën a rëy ci monde bi gën a xeex wàllu drogue lañuy def ci ay moyens mm-hmm. malgré ça la drogue est dedans maanaam cin luy baax la daal. Mhm. waaw cin luy baax la. foo dem ma nga fa. Mhm. Euh, fexe nag ba du dugg ci réew mi lu am solo la parce que drop li muy yàq ci réew mi dafa bari waxuma la nit ñi nga xam ne da koy jëfandikoo rek mais juñu nga ko sànq économie réew mi sax mën na ci sooxe. Euh, fi muy jaar nag weesuwul yoon yi nga xam ne moom la ñu xam ci air bi jaww ji maanaam avion yi ko fiy dugal. day jaar aussi ci géej gi ci bateau yi nga xam ne dañ fiy jaar ak ay gaal. Ah, loolu de kon moom xale bi nga xam ne mosul génn këram mosul génn dëkk bi moom indiwu ko fi. Ah, xale bi ah, dëkk ci baale bi toog moom moom kon lañ ko xool yenn drogue yi xam ne dafa dugg ci réew mi yu mel ni héroïne cocaïne ak crack ak yeneen drogue yooyu yooyu nga xam ne xeetoowul fii bàyyewuñ ko fi parce que drogue bi nga xam ne moom la ñuy bàyyee ci réew mi ñëpp xam nañ ko mooy yàmbaa la bàyyewuñ ko ci réew mi kese ñu ngi koy bayee feneen mm-hmm. mais dañ koy bay ci réew mi mais même yàmbaa boobu sax bëri na ci réew yeneen yu ñu koy jëlee di ko fi dugal donc ñi ko fiy dugal nit ñu am moyen la ñu loolu mhm. il faut ñu wax ko nit ñu am moyen la ñu mhm. am bëri ay pexe mhm. mooy tax ñu mën dugg ci réew mi malgré contrôle yi am yëpp di ko jaarale ci géej gi di ko jaarale ci yoon yi euh, euh, euh, ci ci tali yi ay oto di ko fi dugal bu ñëwee ñu fexe tas ko tas tasaare ko ba mu dugg ci suñu quartier yi xale yi di ko jëfandikoo Mm-hmm. donc loolu mooy li nga xam ne moo am maintenant euh, euh, ñi nga xam ne ñooy wàllu ñoo ñooy yore wàllu liggéey boobu muy police gendarmerie douane ñoom nga xam ne ñoom lay yoon may ñu taxaw ci frontières yi pour fexe ba drogue du fi dugg mm-hmm. ñu ngi def seen liggéey mais liggéey bi jàpp nañ ne des na mm-hmm. parce que malgré effort yu ñu def yëpp drogue baa ngi fiy dugg at mu nekk ñu jàpp ay ton drogue di ko lakk day wane ne am na lu ñuy jàpp mais am na lu ñu dul jàpp aussi dëgg la liñ dul jàpp moom ci biir réew mi di lor askan wi. Mhm. Sénégal nag comme ni ñu koy waxee euh, pays de transit la woon. Mhm. maanaam dañ fi daan jaareel drogue di ko yóbbu parce que drogue yi nga xam dañ koy produire en en en en Amérique latine surtout. Mhm. da daan jaar fii portu Dakar parce que Dakar nu mu bindoo. boo xoolee sax carte bi. mooy point bi gën a avancé ci océan Atlantique. en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest boo jógee dans les États-Unis Amérique latine pour dem Europe nécessairement da ngay jaar Dakar donc dafa doon foo xam ne dañ ko daan utiliser euh, euh, mu nekk point de transit pour Selebe yoon daal Selebe yoon donc loolu tax na drogue bi yàgg na fi jaar yàgg na fi jaar mais mujj gi muy wadd mujj gi muy wadd comme ni nga ko waxee ni di ko fi ah. donc ba dem na tey am na rek benn liggéey bu nga xam ne def nañ ko at yi passé

te li gën a doy waar ci seen biir am na ay jigéen xëy na xëy na mm-hmm. xëy na xëy na tolluñ ni góor ñu toll waaye am na ay jigéen ñoo xam ne dañuy jëfandikoo xeetu drogue yooyu mm-hmm. euh, euh, ñu def ci ñoom benn euh, jàngat maanaam test VIH sida parce que dañ doon xool ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue naka la ñu mën a amee doomu jàngoro sida mais bi ñu defee xayma boobu gis nañ ne daanaka téeméer boo jël ci ñoom daanaka fukk yi am nañ doomu jàngoro sidaa études yi résultat yi mu génne mooy 9,4 pour cent mm-hmm. donc loolu dafay wane ne problème am na non seulement ñu ngi jëfandikoo drogue bi waaye ñu ngi exposé wu ci yenn xeetu jàngoro yoo xam ne tey yu jara moytu la yu mel ni sida te ñiy jëfandikoo drogue yooyu mën nañ ko am parce que niñ koy jëfandikoo moo leen koy jox ay ay ay piqûre la ñuy jël lu ci mhm. ëpp di bokk piqûre yooyu bu ñu koy consommer et loolu mooy lewal doomu jàngoro ci saati seen biir ba am na sax benn programme bu am solo boo xam ne ñun ñu ngi koy tey développé ànd si ak suñu benn partenaire bu tudd ANCS pour fexe aar ñoo xam ne ñuy jëfandikoo drogue euh, arlène leen ba doomu jàngoro sida bi leen lor donc loolu ay mesures looy xam nañu am na fi mm-hmm. may jeexal ci lenn état Sénégal ci boppam euh, dañuy wax rek ne quand même état la boo xam ne jël na ay mesures yàgg na ko jël d'ailleurs may rappeler rek que loi bi ñu njëkk am bu xeex drogue fii 1963 la 1963 boobu bëri na réew ñu wër en Afrique amuñ benn loi sur la drogue mm-hmm. d'ailleurs ñoom dañ doon wax sax que drogue amul suñu réew 1963 mm-hmm. deux ans après notre indépendance daanaka ñu nangu nañ ne drogue am na fi effectivement jël loi boo xam ne da koy xeex te jamono yooyu nag loi bi moom euh, euh, drogue bi nga xam ne moom la ñëpp xam moom rek la concerné woon muy yàmba ñu koy wax cannabis mm-hmm. ñu ne woon ku ko jëfandikoo yoon dana dal sa ko nga koy jëfandikoo di ko tux wala nga koy jaay mm-hmm. wala ñu fekk nga koy bay di entretenir fu ñu koy defaree mm-hmm. wala nga ñu fekk ko ci yow rek xëy na sax da nga ko forta xamoo lu mu doon donc yu mel noonu loi jël na ko en 1963 Sénégal aussi ratifié na ci jamono ñu tollu lepp li nga xamné moy convention ak ay traité yo xamné amna au plan international au niveau national taxawal nañ benn kuréel bo demee ministère intérieur amna na benn kuréel bu fa nek bu ñuy wax comité interministériel de lutte contre la drogue nous kuréel la bo xam d'un dañ ko jagleel mhm. euh, euh, xex drok te mu nek comité interministériel manam fukki mhm. ministère ak djuroom ñett mhm. ñoko bok ñun ñi ci la bok parce que dañ ko élargir organisation société civile ñun wa Radovis Fonds lutte ak benin organisation bu tudd ASRDR ak euh, nu mu tuddati def ñun ñep ñu ngi ci biir comité bobu di saytu naka n'a qu'à drok et ci biir réew mi lolu loo am solo la mm-hmm. li nga xam ne sax mooy code des drogues bii nga xam ne am nañ ko tey ñu ngi saytu jàllankoor yi ci nekk pour gën koo rendre efficace mm-hmm. donc pour wane ne am na ay mesures yoo xam ne ñu ngi koy jël mais malgré sax mm-hmm. drogue bi mu ngi ci biir réew mi nañu xeex nag nañ gën a dolli xeex bi gën a contrôler frontières yi gën a xeex corruption bi mm. parce que aussi mbiru drogue loolu am na ci mm-hmm. euh, pour que véritablement ñu wàññi drogue bi ni mu nekkee ci biir réew mi mm-hmm. dimbale ñi nga xam ne ñu ngi koy jël parce que bëri na ñoo xam ne dañ koy jël euh, ñàkk a xam mm, ñàkk a xam mm-hmm. au départ moo leen ci dugal ñenn ñi xëy na nekk nañ ay jafe-jafe àdduna yoo xam ne jàpp nañ ne drogue bi moo leen ci dimbale moo leen ci mën a génne euh, ñeneen ñi xëy na influence am na ñoo xam ne sax la tax ñuy jël drogue bi seen biir kër la jógee seen biir kër la jógee Euh, gis nga juddoo màggee ci kër goo xam ne euh, ña fa nekk ñu nekk say nijaay say mag yooyu dañ koy jëfandikoo mm. euh, bokk na ci li nga xam ne mën tax xale bi bu màggee mu di ko def mm. même tux mii nga xam ne dañ ko xaw a banaliser boo mm. dem ci kër yi daanaka ñiy tux bari na mm-hmm. mais loolu rek dafa doon loo xam ne mën na exposer xale bi ci wàll yu mel noonu mm-hmm. Mm-hmm. xëy na duñu wax ne képp kuy drogué rek kuy tux da ngay waaye encore que buñ ko bu ñu demee sax mhm. bu ñu demee sax scientifiquement parlant cigarette bi nga xam dañ koy tux drogue la mhm. oui oui oui ñun dañ koy wax bés bu ne mhm. bu ñuy waa xeex drogue dañ ci boole cigarette dañ ciy boole alcool parce que yooyu ay drogue la yoo xam ne effectivement nit ñi duñ nangu ne drogue la waaye ku koy def jàppal ne yaa ngi drogué wu loolu dañ ko war a xeex mu jóge fi voilà voilà donc loolu ku koy def ci biir kër aussi yaa ngi mm. exposé ay xale mm. effectivement ci comportement fu ne ëllëg mën na leen yóbbu ñu jël lu mel noonu mm-hmm. donc day doon yoo xam ne ay mesures la ñu war a jël d' parce que mbiru xeex drogue du rek mbiru état du mbiru Sanzal Chirac ci biir kër yi la war a commencé mm-hmm. aussi waajur wu nekk na nga saytu say doom yar leen lii ñuy def ñun nga di ko def di def prévention mm. fexe ba xale yi duñ ci dugg mm-hmm. donc loolu dafa am solo d' abord ci biir kër gi à travers comportement yi ñuy am mais à travers communication yoo xam war nañ am xale am contrôle ci ñoom mm. parce que tey li am solo mooy aussi contrôle bi ñu waroon am suñu doom yi euh, dafa dafa sooxe bu baax a baax mm. macha allah Diop dinañ si ñëwaat mu gën a yaatu Badiane Louise tey de responsabilité wu parents yi moom moo nekk en question ci wàllu jëfandikoo gi ndaw ñi di jëfandikoo drogue en tant que yaay euh, ndax gis nga ne waajur taxawaay bi ñu war a taxaw par rapport ak seeni doom ci question bi ni mel ndax loolu mi ngi am wala bon je dirais que euh, waajur yi ñi am seen taxawaay ah ñu yar bu baax a baax xanaa kañ di naan xale yi ñëw të mm-hmm. yaay bi day nekk këram lu war ci doom yi mi ngi koy def mm-hmm. mais il faut que ñu jël en compte ne xale bi nekkul H24 ci këram mm-hmm. donc bu génnee këram day dem école day fréquenter d'autres types de personnes yoo xam ne yaayam amul contrôle ci corps boobu si si si partie boobu donc yaay ji lu mu mën mooy yar sensibiliser def xalé bi mu am jom mu am jomb loolu la mën hmm. maintenant est-ce que xalé bi il est assez fort mentalement pour faire face à à tout ce qui se passe dehors hmm. dafa am ñu xalé yo ils sont influençables d'autres non hmm. les xalé bi bu demee ci école bi et ce qu'il faut rappeler moy même drogue dure hein amna ci école yi légui ah, cocaïne poudre blanche waaw ah, ñun ñun bu ñuy jàng bala nga gis poudre blanche ci télé nga koy gis maintenant même maintenant ci collège yi da ngay gis poudre blanche pour ne même pas parler de cannabis. Cannabis, mom, euh, vraiment, c'est non seulement c'est banal, mm. mais ça coûte rien. Mm. Donc, c'est à la portée de tous. Mm. C'est rien. Donc, rien que prix mm-hmm. c'est un problème. Nous faisons prix accessible, c'est un grave problème. Mm-hmm. donc donc donc ben, donc parents, bi pour mu muccal ci doomam day jafe trop. Ben, aspect bi ñu drogue bi dugg chaque jour ñu ne nañ quantité drogue bu mm. je vous joxe un exemple pour ne pas trop pointer du doigt mm. dama am ci dëkk dem Sénégal les plus grands vendeurs de drogue c'est les hommes de Thun les hommes de dem donc si dëkk boobu vous la di donc ni surveiller xalé yi mhm. def sen mhm. sécurité fekk la drogue japp ko ñun ñooy nangu drogue bi ci xalé yi dugulat ko ci biir marché bi c'est un mhm. problème je dis pas c'est ce qui se passe au Sénégal mais ñu moytu dëkk ba ma lay wax ñi japp récupérer drogue bi japp ko war ko ainsi war ko lak war guiné drogue bi ci dëkk bi ñokoy jël lak moitié bi dugalaat moitié bi ci biir marché bi est-ce que loolu est-ce que li ngi lak mom la sax est-ce que <laughs> ñu rek donc pour dire que c'est un business bo xamné ça fait des riches mm-hmm. nit yu gën a am doole fii lu lu Moustapha Cissé Lo doon wax rek mm-hmm. ah ñu ngi ci ginnaaw affaire bi mm-hmm. beneen bu bu lu monsieur Diop wax sànq ñi ko fiy dugal nan la fiy duggee aéroport yi da def par exemple boo demee si euh, euh, aéroport euh, pays asiatique yi du am ay jumtuwaay yoo xam ne spécial pour affaire drogue la sax boo ñëwee man mës naa voyagé euh, euh, Birama hmm. sama sac am mburaake mburaake maintenant mburaake hmm. mais mburaake bu perte na ma cinq heures ci biir aéroport bi pourtant mburaake mburu la euh, ta affaire bu banal hmm. ak njambaan xam nga njambaan ndax yaa dama ko doon jël bëgg di ko dem jaay o dama doy waar <laughs> mais gis nga produit ñaari produit yooyu ñoom xamuñu ko perte mmh. loolu ma 5 heures de temps ci biir aéroport bi lu nekk liquide bu nekk dugal nañu ko ci def ay achat yoo dem seen labo yi ñëwaat 5 mmh. heures de temps ci biir aéroport bi mmh. ñu ma àndaloon ci vol bi ñëpp dem nañ pour dire que suñu aéroport yi suñu port yi ñoo war a am ay jumtuwaay yoo xam ne bañ ci tayal lu ñu xamul ñu saytu ko saytu ko saytu ko ba xam mais léegi essaay ñuy ñi am doole ñooy dugal drogue bi ci senegal mhm. ñi am doole ñuy dugal drogue bi ci Sénégal dinañu dinañu ñëwaat ci yéen mais dañuy dellu ci sëñ Diop. Mhm. sëñ Diop yéen ci centre bi ñi ngeen di faral di recevoir. Mhm. Eh, tranche d'âge bi booy xool. ndaw ñi ñoo ciy ëpp wala ñi diggu doomu wala mag ñi. ak itam ban ban rapport ngeen am ak parents wu ñëw ñu ngeen di dimbale pour ñu delluwaat ci société bi. Euh, ñi ñu fay recevoir ñi ci ëpp ay ndaw lañu ah. Euh, âge yu am ñaare day jege ñaar fukki at fanweeri at. 40 hmm? ans. léeg-léeg nag nga recevoir koo xam ne moom mag lay doon carrément. ñooñu ndaw ñi ci ban situation la ñuy nekk bu ñuy ñëw ci yéen d'habitude euh, naka la ñuy seen état ñu ci bari ñu ci bari bu ñuy ñëw dañuy fekk yàgg nañ ci consommation bi parce que euh, li nga xam ne aussi mooy li ñu war a wax mooy que parents yi bala ñu àndi seen doom rek fekk yàgg na ci déjà mm-hmm. ah kon parents yi ñooy jël seen doom indi foofu mais du du individu bi ci boppam mooy indi boppam léeg-léeg nga gis ku ñëwal boppam mais li ci ëpp li ci ëpp ay parents ñoo fay àndi seen doom léeg-léeg nga gis ku ñëw ne la grand man dama nekkoon ci mbir yi am ci ay problème dama ba ngeen dimbale ma génne ci am na léeg-léeg nga gis ko léeg-léeg gis ko man recevoir naa sax koo xam ne daf ne ma dama bëgg nga dimbale ma parce que suñu waake dañ ma génne suñu kër oh. parce que mbir yi may jëfandikoo paa bi nangootu ko daf ma génne kër gi complètement non seulement dama bëgg nga dimbale ma ma bàyyi mais nga dimbale ma ma dellu ci kër gi mm-hmm. donc metti woon na trop mais mi ji nañ dox ci ay tànk mm-hmm. ba delluwaat na këram Euh, mais ñi ci ëpp nag seeni parent moo leen ci àndi te ñi ci ëpp seen yaay moo leen di àndi néew mm. na nga gis euh, papa euh, yu ci léeg-léeg mu am mais li ci ëpp daal maire yi la ñuy gis ñu am yaay amul yaay amul moroom yaay loolu moom suñu société moo tëddee noonu mhm. Mhm. Ah, yaay moo ñaare boo nekkee ci yenn jafe-jafe yi sa yaay mooy njëkk a taxaw mhm. de toute façon taxaw yu ñu ci am ñun góor ñi duñ ko ciy am lu ci ëpp Hmm. donc loolu lu ñu seetlu la euh, te ñun sax loolu dañ koy soxla hmm. parce que euh, man même bu fekkee ne yow da nga de ñëwal sa bopp hmm. dañuy bëgg say waajur aussi ànd ak yow ci li nga xam ne dugg nga ci même bu fekkee da nga àndi sa bopp ne dama nekkoon ci biir bëgg ngi ñu dimbalee ma génn ci ñu danañ fexe xam say waajur euh, ñooy ñan ak fexe boole leen ci liggéey bi nga dañ koy def parce que jàpp nañ ne nit ki lu bari bu ci bëggee génn mhm. bu ci ay waayoom jàpp lu ci génn mhm. donc du yomb donc ñun rôle de la famille ci liggéey bi nga xam ne dañ koy def dafa am solo mhm. liggéey bi ñuy def dañ koy def lëkkaloo ko ak waa famille bi c'est important du ñu jël nit ki nii rek di liggéey ak moom xamuñ fu mu dëkk xamuñ ay mbokkam xamuñ na mu tëddee donc loolu duñ ko def képp ku ñëw ci ñu it dañ lijjanti ba xam sa famille naka la tëddee jëm leen boole ci liggéey bi ñuy def parce que loolu dafa am solo donc loolu ay mbir la yoo xam ne dafa important moo jeexal rek ci lenn dafay am solo Euh, que nit ñi bu ñu nekkee ci kër yi ñuy bàyyi xel xale yi bu baax a baax mm-hmm. parce que ñaari ñi ñuy recevoir boo wéetee waajur wi ne ko yow sa doom yi nga andi fii lan mooy problème bi da lay wax man fan yii rek laa seetlu mu soppeeku parce que nii parce que na fan yii la weer wi laa ko gis mais ñun bu ñu wéetee ak sa waay mm-hmm. def ak ñoom liggéey bi nga xam dañ koy def parce que ñun quand am na suñuy technique yoo xam ne mm-hmm. bu ñu jàkkaarloo ak yow Euh, danañ xam lu bari ci li nga nekkee mm-hmm. mais bu ñu weeteeg waa ji wala xale bi danañ xam ne kii bi mu ci nekkee yàgg na mm-hmm. waajur yi ñu ngi koy doog a découvrir mais que ba mu commencé jël yàgg na mm-hmm. te état bi muy ñëwee pour répondre sa question daanaka dafay nekk dans la dépendance maanaam nit lay doon koo xam ne li muy jël mënatu ko bàyyi ëpp na ko doole ba mënatu ko bàyyi mënatu ko bàyyi parce que mbiru drogue aussi loolu mooy problème bi mhm. c'est un produit très dangereux dafa am principe actif boo xam ne boo koy jël effectivement daf lay installer dans la dépendance mhm. maanaam dafay doon loo xam ne dafay jàpp sa servo mhm. ba nga xam ne yow fekk jëfandikoo ko doo sax am stabilité doo nekk nit donc waa ji chaque jour il faut mu jël li muy jël pour mën a stabiliser wu donc loolu moom mooy déterminer et que nag da koy jaral lu ne parce que loolu da koy conditionné gis nga ki nga xam dafay jëfandikoo drogue hmm. xam nga ñun bu ñu ay bu xëyee am nañ bëri nañ ay soxla waaw mais moom benn soxla la am benn lay def na na def ba tuux naka lay def ba jàmm wala naka lay def ba jël li muy jël hmm. ci anam bu mu mënti doon hmm. loolu moom mooy soxlaam et loolu mooy doon soxlaam rek mën na ci dox sooba ngoon mu jaral ko lu ne nag jaral na ko lu ne dem na ci ba effectivement jaay la mu am gis nañ ko. agressé tafu agressé mm-hmm. tafu. nax mm-hmm. tafu. ndax nit yalwaan sax. Mm-hmm. grand alma cent franc yu ma demee géejawaay nga jox ko mu def ko keneen def ko keneen bu ma tee téeméer mu dem jënd benn laxas. donc loolu jaay na la mu am jaay na téléphone am jaay na mbubam bu baax jaay na ceinture am jaay na lépp bu yàggee lu mu jël mu dem. këram lay commencé dem ci voisinage bi dugg ci agression. est ce que est-ce que mm. fi Sénégal et que meun na yóbbu même ci criminalité. Mm, criminalité voilà may ko mo ci. donc lolu effectivement ay mbir la yo xamné mm. dafa don ay phénomène de société yo xamné ne dafa lëkkalikoo ak wàllu drogue il devient violent mm-hmm. donc yoyu ay mbir la yu doy war xam nga yéen centre Jacques Chirac prévention bi mo leen taxone jóg mais est-ce que dañuy xol fi cure bi yéen ngi koy def est-ce que wala tamit même bu fekkee defoo leen ko est-ce que am na fii ay centre de désintox fi yu ne fi Sénégal yoo xam ne dañuy cure bi directement koo xam vraiment mm-hmm. c'est un habitué mm-hmm. mm-hmm. dépendance bu extraordinaire ndax am centres ay centre de cure tout à fait ah. tout à fait question vous dama ci dama ci sawar trop parce que loolu dafay am solo ñu wax ko pour que ki nga xam lu mel noonu dal na ñu xam le ne am na foo xam ne bu fa demee mën nañ ko ah, faj faj moo xam véritablement mooy li dépôt ak état am ba mu mën ci génnaat loolu la ñuy wax cure de désintoxication loolu amna fi ci Dakar bo hmm. demee bir fan, amna na benn structure bu fa nek bu tudd CEPIAT euh, centre euh, le bo xamné da fay jël lepp lo xamné da fa jëm ci walu drogue en face hein? morgue hmm. waaw ñu koy wax centre de prise en charge des addictions de Dakar hmm. euh, bo demee hôpital fan, mel ni ko ñu ci morgue bi ci sa droite non la 2015 lañ ko ubbi ma leen di féliciter ñom docteur Ba ñom docteur Ndiaye fa nek Euh, ñoom liggéey bi ñuy def am na solo. Mhm. d'ailleurs ñun ñu ñuy recevoir ñu ci ëpp tey. ñu ci ëpp foofu lañ leen di référé. Mhm. ñun dañu lëkkaloo ak ñoom. Mhm. parce que wax naa ko sànq ñun dañuy accueillir nit ki dalal ko non non non la état du Sénégal moo ko moom installé ko biir hôpital Fann lu mel noonu yemale wuñ ko sax hopital Fann kese ñu ngi koy jéem a def feneen caaro Thiaroye boo fa demee tey am na benn euh, service bu mel noonu boo xam ne bâtiment yi pare na xay na dana démarrer fan yii di ñëw ak fan yii di ñëw ak néew danañ ko ubbi ñi nga xam dañuy jëfandikoo drogue mm-hmm. surtout ñi nga xam ne dañuy jamu mm-hmm. parce que loolu bari na ci réew mi mu andi leen ay problème wax naa ko sànq ci doomu jàngoro sida ñooñu effectivement am na structure boo xam ne ñu ngi koy waaj ubbi biir hôpital Thiaroye mm-hmm. euh, aussi loolu ñu ngi koy waajal yemul foofu rek mbuur boo fa demee am na structure boo xam ne spécialisé na pour jël ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue kooku commencé na fonctionner. Mm. am na Kaolack aussi am na lu ñu fay waaj a ubbi. Mm. ñu ngi waaj ubbi lu mel noonu aussi Ziguinchor donc pour wax ne tey yi fonctionnel mooy CEPIAT bi nekk biir Fann ak centre bi ñu wax UPAM. Mm-hmm. bi nekk Mbour docteur Seck jiite ko. Mm-hmm. ak euh, yi nga xam ne nag ñu ngi leen di waaj a ubbi mooy bi nekk Thiaroy bi nekk Ziguinchor ak bi nga xam ne mu ngi Kaolack. Mm-hmm. yooyu yëpp ay centre la yoo xam dañ ko spécialisé. pour jël ñi nga xam ne effectivement ñu ngi jëfandikoo surtout nag. ñi nga xam dañuy jëfëndiko drogue diko jamu manam héroïne bi mm-hmm. ñu leen di jox benen produit bo xamné ne xëy leen dimbale non seulement duñu mëna jamu mm-hmm. héroïne bi mais dañu leen taxaw baax ci seen walu wér gu yaram wax méthadone mm-hmm. donc lolu effectivement esprit du existe la donc xëy doli ko parce que bari na réew zone yo xamné mbir yu mel non amna na fa mais déjà il y a effectivement euh, ces structures là yooyu existe la et il y a des politiques pour renforcer la décentralisation macha allah soxna Rokhaya mm-hmm. gis nga élément bi maanaam <clears throat> baal leen yi fi jàll lépp si kàddu loo ciy yokk mm-hmm. euh, man li ma li ma gën a attire ci drogue bi oustaz Birama mm-hmm. mooy bu weesoo ni mu installé woo ci biir kër yi ni ci jigéen ñi duggee am na benn euh, événement bu ma benn atelier bu ma couvriroon ñu doon xool zone yi nga xam te ne ñoom la gën ndaw ñoom lañ gën a fréquenté ba je pense que ni HLM ak euh, Médina Gounass bokkoon na si zone yi nga xam te ne gënoon nañ leen a ciblé te HLM gi boo fi duggee am na ay comité léegi yu ñu def ngir xeex loolu mm-hmm. ba ndaw ñi daal di génn si drogue bi mm-hmm. mais jigéen ñi léegi dañ cee dañ cee feeñ mm-hmm. dañ cee fi avant xam xamee wuñ ko woon si jigéen ñi mais tey ñu gis nañ ne moo xam muy drogue bu mu xeet bu mu simanti nekk ñu ngi koy jël te bu nëbbatu ci ñu ngi koy joué ci film yi mm. di ko wane ci tele bi nit ñi di ko gis loolu tamit jar nañu bàyyi si xel mm. parce que nit ñi euh, xale yi xam nga xale dafay roy mm-hmm. boo ko ko teree ci biir kër gi mu koy gis ci tele bi bu génnee ci mbedd mi dina ko essayé foo xamante ne euh, fekke woo ko mm-hmm. ñu ngi naan waajur yi waajur yi comme ni ñu ko waxee sànq euh, mënuñu topp xale yi topp leen topp leen topp leen ba ba ba fi ñu nekk ba ñu sës mm-hmm. parce que mën nga yar sa doom mu jub ci biir kër gi lool génn ci mbedd ñu dévier ko loolu lan moo koy indi dafay fekk ne am na ay xarit yoo xamante ne liggéeyuñu xëyuñu gontuñu defuñu dara mm-hmm. dañuy xëy toog mm-hmm. loolu ñuy toog nag di ko essayé mu koy gis ci ñoom moom lay xëy daal di koy essayé mm-hmm. kooku xam nga ko góor ki la demul fenn mais ku jigéen ki lan moo ko dugal ci drogue bi ndax lépp moo tax jigéen gën a garaaw yow jigéen bi nga xam xamante ne yow yaa utiliser drogue boobu noonu yow yaa war a dem ay jur ay doom yow moom ndax tey ji di nga toog di yar kenn naan ko defal ni wala boo koy def day fekk sës na am nga at yoo xamante ne dem nañ ba génne la ci nga ñëw ci centre bu ci mel ni ñoom Cheikh ñu gindi la ba nga xamante ne yow ñëwaat nga ak sa sago nga toog bëgga a yeetewaat ndax du fekk ne see trop tard mm. ah ak yeneen yoo kenn point yoo xamante ni am na ci tey jii nguur gi donte bu dee ñu ngi ciy def ay jéego comme li ma faral di wax naan bu fukki nit di gas fukki nit di suul moom mm-hmm. pënd bàyyi bëri rek waaye du kàmb daal mm-hmm. ndax ñoom cheikh bu ñuy ñëw di defar nit ñi mm-hmm. bëgg leen a delloowaat ci société bi chaque jour que jëfee doo ubbi journaux yi te doo gis saisir nañu fenn